عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك Thank you. ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu di julli ci xalifaam bu tedd bi Cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu di màggal di ndokkeel di ziyaara Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu di seen xalifa ñoom ñaar ci lu amul benn sikk di ziyaara di màggal sunu bunt ci moom Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqibu ibnu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu di ziara di ndokkeel di ziara imtulaay sunu ziara yi nga xamante ni moo waral bis bi nga xamante ni bu ñu ñëwee taxaw organise lii ci ay tëbbam la ci ay mëdëdam la ci ay yitteem la moo tax lii am ñu koy nuyu di ko ziara moo waral jotaay bi di seexu naa wa wasilatuna wa xudwatuna cheikh mouhamadou sakhir ndiaye yal na yàlla yokk ko may ko wér yàggal ko fi ci zahir ak ci baatin barke Baay yaa rabbi ñu ngi Baay Ñas jërëjëfee Baay Baay Ñas baay war nañu ndax ay ndaw te raw gu weex sax saxagut suñu boobu ñu bëri si yàlla dimbali ñu ñu mën fee teewal ñu màgg ñi kon loolu sant yàlla la moo tax may leen jërëjëfee bàññis ñu ngi tijji jotaay bi ci bismillahi rahmaani rahim di ko tijjee ci ni ko Mawlana Cheikh Ibrahim Niass daan defee baat euh, baatu alquran ki ñu ko fas yéenee jàngal di turandoo ci sëriñ bi taalibeem bu mu yar mhm. ba mu gis liggéeyam ci moom yàlla may ko tur tànk mu dippee ko sëriñ bi mu yóbbu ko ca daara ja mu góorgóorlu fa ba wattu alquran moom la ñu a jox muy cheikh mouhamadou sakhir ndiaye jite mu jàngal ñu ayatun min zikril hakim waaye balaa boobu ñu ñaanal ko yàlla ñu def fatiha ñetti salaatul fatihi ñu ñaanal ko yàlla yàlla wattu ko sàmm ko yàlla musal ko ci cat ak làmmiñ ak mboolem balaa bu ko defee ñu soog ko jox mu jàngal ñu alquran qaala lahum muusaa hal attabi'uka alaa an tu'allimani mimmaa لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أصل لك خمرا قال فإن اتبعتني فلا عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة هرقا قال أقررتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق الله العظيم bu ci géej gi comme ni ñu ko jàngee ñun ñëpp ci soota këf yi dañuy fàttaliyante rek kenn ku ci nekk la ñuy wax ne yaa ñu gën a xam waaye ñuy dox di dem di dox di dem di dox di dem di dox di dem ba àgg ci xadir fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilman bañ àgg fekk fekk fa benn jàmm boo xam ne yàlla jox na ko ci yërmandeem ba pare xamal ko nag wa allamnahu min ladunna ilman kon yëf yaa ngi foofu de ilmu laduni ma ngi noonu da nga koy am te doo ko doo jaar ci benn nit yàlla moo la koy joxal boppam min la dunna ilman alquran bàyyi na pour fépp la pour faw la pour ñëpp la du du du premier mukk ba léegi ko jaar fa yi jaaroon yàlla man laa cëral kon yàlla yàlla suuf ci yoonu mag ñi ba yàlla yonent yàlla Muusaa ne ko ah yonent yàlla xadir kon xadir ne ko o ànd ak man ndax yow fi nga toll fi nga nekk ak man fi ma nekk bokkut kon mbir yaa ngi noonu de fi nga nekk ak fi waa nekk bokkut kon bul weddi dara yow bul weddi dara mu ne ko ndax dama laa bëgg a topp ala an tuallimani mimma ullimta rushdan dama laa bëgg a topp nga xamal ma la ci li la yàlla xamal am njub nga xamal ma kon topp toppee ngi noonu foog nga am ko topp Anis Mansour bu Égypte borom borom xam bu mag la mu ne soo doomu aadama yàlla ko bind ci toppee ba nga xam ne su amul ko topp dana ett benn xeer topp ko kon foog nga am ko topp loo weddi weddi weddi weddi rek da am ko topp kon ñun yàlla yàlla suul ci yoonu mag ñi yoon bi nga xam ne ci la maam El Hadj Abdoulaye wala balaa maam El Hadj Abdoulaye Cheikh Tidiane ak leneen ñi leen jiitoon waaye gannaaw ñun ñooy ñooy Sénégal balaa yoon bi nga xam ne si na Cheikh Ahmed Tidiane moom la soobu woon yoon wi moom El Hadj Abdoulaye soobu ci El Hadj maam El Hadj Malick soobu ci maam Serigne Touba soobu ci ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne kenn xamu leen dégg nga yoon woowu yoon woo baax na yoon woowu boo ci nekkee baax na kon yàlla yàlla soob ci seen yoon bi. Eh, yonent bi nag moom mooy kado bon xam ne moom la yàlla moom la moom la moom kado ne moom lañu yàlla may muy kado boo xam ne ñun ñëpp ko bokk te mooy caabi yërmande te mooy caabi barke te mooy caabi texe ku bëgg barke ak bëgg yërmande nga yo topp yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu wax ne su ngeen gisee nit muy nit ku baax yàlla may ko xikma yàlla may ko xikma may ko ak fasaa jub ak wala na addis boo waxee rek na ngeen ko topp kon toppee nga noonu toppee mënta ñàkk euh, ngi ñaanal yàlla nag mboolem ay saabaam saabaam yi nga xam ne dañoo jaay seen bakkan jaay seen alal jaay lañ gën a bëgg lépp jox ko l'islam pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a àggaleen oote bi yàlla wax na ci alquran inna la ishtara min al muminina anfusahum kon loolu ba léegi nag mu ngi dox waaw ba léegi dox moo tax nga dégg bàyyi wax ci royal ibadi baaw nufuusa samma wal amwaala waaw jaay nañ seen alal yi jaay nañ seen bakkan yi jaay nañ pour ànd man kon yàlla na yàlla tas ci barke mbooloo moomu waaye di ñaanal yàlla Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ak tamit ki nga xam ne moo doon mbóotam te mooy Mawla mooy Mawlana Cheikh Ibrahima di borom barab bi ñu ngi koy ñaanal yàlla moom tamit yàlla dolli leeram dolli dolli barke bi gannaaw ak mbooleen ñi nga xam ne nag ñoo toppoon ñoo ko toppoon ñoo ko toppoon ca commencement ba ba nga xamee ne yëf yi boobu yëf yi neexul waaw ja jamonoy Kossy ja nga xam ne boobu dara yombut mag ñi nga xam ne ñoo toppoon na Cheikh Ibrahima ñoom tamit yàlla yàlla yokk seen leer mbokk yi ñu leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel di ñaan yàlla eh, maanaam yàlla na ko yàlla diri ay sembaanam ci ñun ñëpp. yàlla mën na ko yàlla yàlla def loolu ci mbiram cheikh nag sëriñ sëriñi tarbiya ak muridu sadiq loolu wax ci xam naa ñun sax tuuti nañ ci tuuti nañ lool ci wax ci loolu waaye daal xam naa ne cheikhu tarbiya moom boo ko bëggee xam ne mooy ko xam ne dafay jàpp sa roxo di la tarbiya di la tarbiya di la tarbiya di la la yaa nguur sa borom ngoog mooy ki xam ne moo lay jubal waaye nag am na ay critères yoo xam ne dafay nekk ci moom la budde mu nekk ci moom maay sëriñ bi rek noonu rek maay sëriñ bi rek rek rek noonu rek doyut sëriñ duñ ko topp ci ay colaay duñ ko topp ci ay waruwaay duñ ko topp ci ay nekkuwaay loolu du nattukaay bi waaw loolu nattukaay bi sëriñ bi eh, Cheikh Sakhir papaam daan na wax ne sëriñ sëriñam daan ko wax ne sëñ Abibu Kan du goroom daana ko wax ne bu fekkee ne loolu ngay nawee sa sëriñ bi booy boo nga dem jébbalu ci pôl waaw bu dee sëriñ bi mu ne li koy nawee daal mooy war waay yenn yeeg yenn yi mazahir yi mu ne loolu moom booy boo nga dem jébbalu ci pôl parce que pôl moo ko gën a bari le mooy tubaab bi pôl moo ko gën a bari kon loolu du nattukaay bi liñ soxla mooy ruux yi defaru kon sëriñ bi dafa nekk koo xam ne dafay am xam-xam dafay te tamit dafa wara a ragal yàlla dafay ragal yàlla bu wéetee ak bu wéetalikoo lépp dafay ragal yàlla sëriñ ci maanaam mënum gën a gàttee comme ni ko bàyyi tëralee leerale mooy koo xam ne pare nga ci sa bopp koo xam ne pare sa bopp boo defee nit ñi nag door a ñëw ci yow waaye ku parewul ci boppam nag samp ne da ngay nekk sëriñ seen na Cheikh Sidna Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ne na loolu ku ko def da nga al mu ne ku def lool danga nga ko kon sëriñ mooy ko xam ne pare nga ci boppam pare na ci boppam ba pare don yonentu bi nag sallallahu alayhi ci jikkoom yu rafet ya donn ko ci jikkoom yi rafet ya ci sunnaam sunna yonentu bi sallallahu alayhi wa loolu lu mat a taxaw la lu mat a taxaw la sunna yi sunna yi doo ne mooy julli fara julli farataay julli nangam la sunna yi nangam la naafila nangam boo jullee suba bala ngaa julli suba nga naafila boo jullee bala ngaa julli tisbaar nga naafila wala boo jullee bu yor yoree nga naafila bala ngaa jul subaar nga naafila bala ngaa jul bala boo jullee pare nga naafila bala ngaa jul takkusaan nga naafila ba gexe noonu timis noonu gexe noonu ay sunna lañ de waaye sunna bi tax ñuy wax dëgg dëgg dëgg mooy da ngay lewet dangay lewet da ngay am yërmande da ngay lewet da ngay am yërmande comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw ci moom dox soo di koy yoot ne yonentu nga ne moom doox yonentu Muhammad lay wax ndax bu fekkoon yonentu la du wax bu fekkoon kon euh, dem du ko jéem a rey waaye Muhammad a nga ne yàlla ma yàlla rey su ko reyut yàlla ma yàlla rey su ko reyut muy waaf di watatu di watatu di watatu ba àgg ci yonent bi fekk yonent bi mu ngi teg jaasim nii waaj a jël jaasi ji yëkkati ko nekko ko ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan may dox suma diggante ak yow yonent bi ne ko yàlla ñu ne kaddu gi am siru kaddu yonent mënu ta ñàkk a sirru jaasi ca daanu wala ñu ne déedéet Jibril la ko ba wax waaye kaddu yonent bi sirru la kan mooy dox sama diggante ak yow mu ne ko yàlla yàlla jaasi yorot waa ji karakare yonent bi jóg sol mbubbam ba pare te jaasi ji ne wax kan dox sama diggante ak yow yow mu ne kanaa ah, kanaa sa mbaax rek kanaa nga sa mbaax rek wala mu ne déedéet kun xayra aaxisin gënal nekkal ki gën ki jël ki téewoon jaas ji man damaa téewoon jaas ji bugg laa rey léegi yow gën ma baaxal ma yonent bi ko maa ayoo mbaax sànni jaas ji ne ko demal bu doon ñun ñun bu doon ñun dañ lay jéem a rey rek ñun ñun ku la xusi nga xokk ko ñun ci lañ nekk ñun loolu waaye def nga fayu loolu waaye def nga fay mbir yi du noonu boo bëggee cër da nga da nga musul da nga da nga jéggale bu baax a baax a baax mag ñi dañoo wax ne ku bëgg Euh, koy tooñ du mucc mukk waaye koy faytu du të kuy tooñ du mucc waaye koy fay du të kuy tooñ du muy mucce eh? tanaamu aynaka wal mazlumu muntabihun yaddu alayka wa aynullahi lam tanami yaa ngi nelaw tooñ waaje ba pare yàqu nga dossier ma bind dossier ba sotti ñu déposé ko ci ministère bi wala ñu déposé ko présidence wala ñu déposé ci gouverneur bi wala fu demee noonu nga doxee waa ji yàq ko nga yàqu ko yàq nangam téeméer nit seen soxla nga xam ne kooku ñu bëree bëree bare bëri luñ añee ci moom di reeree ci moom muy fajal al soxla bare bëree bëree bëree bëri loolu lu ko gën a bon amut loolu lu gën a bon amut dégg kon kooku nag bu demee ba wéet bu toogee ba digg guddi ba nga xam ne heure yooyu nga xam ne kenn ko nekk biir nga ak soppeem ñenaan je t'aime noonu koy gars yi waxee ñenaan ñu je t'aime man yow rek laa bëgg yow rek laa bëgg je t'aime yow rek laa bëgg yaay sama ñàkk uti ko yaay sama nangam yaay sama nangam yaay sama nangam waa ji toog moom jàpp jublu xibla di ñaan yàlla inna fulaan aadaani fantaqim minhu diw moom a tooñ yàlla yàlla nga fayul ci moom loolu lu ko gën a garaaw kon tooñ nañ ko moytundiku waaye tamit buñ la tooñee tamit del bale waaw buñ la tooñee del bale kon shamaa'ilu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu ko jeexal loolu la ñu wax ne loolu na ngeen roy yonantu bi yonantu noonu lañ koy royee waaye du na yenn yi yenn yi di dox ndànk di yoot di ndàngam yooyu du roy yonantu yo roy yonantu mooy ngay joxe li nga am nga di ko joxe joxe ba doota dese dara noonu la ñuy royee yonantu te ku la tooñ nga baal ko noonu la ñuy royee yonantu ku la xañ nga jox ko noonu la ñuy eh, tere noonu la ñuy royee yonantu nañ ko bakkal bu baax a baax a baax noonu la ñuy royee yonantu sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci yonantu bi sallallahu alayhi wa daanaka daf koo poñe yonent bi wax na mu ngi sol bur euh, euh, burdu najraani yi am na benn abbaay la boo xam ne dafa tal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni yaramam nooyee waa ji doxee gannaaw xëcc ko ba ba baatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xonq yonent bu gestoo daal di koy muñ daal di muñ ne ko lan la mu ne ko jox ma ci alal yàlla ji jox ma jox ma ah da doon man bu sol dootu ko nettali dootu ko nettali de waaye yonent bi jox leen ko dañ ko jox jox leen ko kon mbiri mbiri mbiri lu mat a la nit ñëw na saaba ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi def ko nu mel noonu def ko nu mel noonu xas yonent bi wax ko lu nekk yonent bi jox ko mu ne ko jox ma ci xaalis bi jox ma ci li nga yor yonent te bi mu koy saaga ak di saaga yonent ngi toog di xas yonent bi ko joxoo ma jox ma mbiru saaba yaa ngi toog yonent bi daal dugg néegam jox ko mu ne ko doy na mu ne ko doyut de yonent bi joxaat ko mu ne ko doy na mu ne ko waaw yonent bi ne ko nag nañ dem ci taalibe yi ni nga ma doon wax wax ju bon ji nga ma doon wax nii nga dem waxaat leneen ndax ñoom dañ lay mere seetal loolu kon moo tax nga dégg bàyyi ne yonent bi moom xuloo nekkul ci moom luy fii xuloo ci nit bi yàlla daf ko dindi ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon loolu nañ ci roy yonent bi ku roy yonent nañ ko royee noonu loolu mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga roy ko ci jikko te tam dëggu ci yow ndax loolu la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee ci ñun moo ko ñun liñ dox suñu diggante moom mooy moom mooy yonentu bi moom mooy jëlee ci pay yàlla bi indi ñun ñu roy lu rek lañ lu rek la lu rek la ut rek rek rek la ut ñun moom mooy jëlee ci pay yàlla bi indil ñu ñu roy waaye li ko li li mu li muy def ci lu baax ni muy jaamoo yàlla ni muy jàngee alquran ni muy defee nangam ni muy defee nangam lépp ni mu ko waree la ñu waree ñun ñëpp waaw kon dañ ko war a roy di bakkal yonentu bi sallallahu alayhi wa Euh, loolu nag moom nga gis moo Mawlana Cheikh Ibrahima di wax ne ida saara xayru naasi surtout war a aw ki gën ci nit ñi su doxee ma topp ci kawam su doxee ma topp ci kawam du ne bu doxee bu doxee dafay jog di dox muy dox topp déedéet maanaam jikko yu yonent bi yore loolu lay yore ndey Aysa biñ ko laajee luy jikko yu yonent bi daf ne jikkoom mooy Qur'an kon jikko jooy rek la dégg nga jikko jooyu rek mooy isa saara xayru naas surtout waraaw moo tax nga dégg moo ci seerul xal bi walaw sawaru ne fi lxaqiqat lam yaraw siwa shaxsi mahbubin bihi atama taaw man buñ ma photo woon dëgg-dëgg photo doo gis dara lu may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man rek loolu rek ngay gis moom nag Mawlana Cheikh Ibrahima nee nañu cëriñ gi nag cëriñ wax na ci bataay wax na ci bataay li may wax du samay waxee bopp waaw du samay waxee bopp ndax jamono bi nag ba nga xamee ne wax mag ñi dañuy wax ne ba nga xamee ne yàlla am na nijaay yoon wi dafa am nijaay am maam am nijaay am rakk am nangam rek neexut a waxati waaye kuy waxta yàlla tax rek yàlla rek a tax yàlla bàyyi mu ne mu ne sëriñ moom du lu ñuy donn da ngay góorgóorlu da ngay góorgóorlu mën ngaa doonu sëriñ bi nag waaw mën ngaa doonu sëriñ bi mën ngaa doonu sëriñ bi mën ngaa góorgóorlu futteeku jaay sa taali sa doom jëndee ko taalibe te bàyyi loolu wax na ci lu bëree bare bare bare bare waaye nag boo ewee ci lool nag mbo ma bàyyi rek de sëriñ bu nekk laa wax man waxuma bàyyi rek de boo amee ci rek mooy suma baay la ngay donn ci moom mooy da nga mën ngaa doon dàllawa de góor ga mu ne mën ngaa doon dàllawa de mën ngaa doon mbub ma de mën ngaa doon nanga waaye cër ba moom cër ba moom la koy tax a doon foog da nga góorgóorlu bu ngeen delloo ci bu ngeen delloo ci mbind baay loolu yëpp ma nga foofu noonu wax ne bàyyi daal di wax ne ci xaqi taalibi nag ci xàqitaane dañ koy gàttal rek ndax jotaay bi dafay may ragal mu mu mu guddi mu guddi bàyyi mu ne nag yow taalibe bi yow nit ki booy ut sëriñ na ut sëriñ boo xam ne cheikhul murabbi boo xam ne ni mu xamee zahir noonu lay xamee baatin te nekk sëriñ boo xam ne sëriñ bi mën a laayee biir la wax ju jafee gi noonu sëriñ bu laa biir wax ju foofu la nekk de ba pare am xam maarifatu billaahi ba pare nekk njiit ba pare nekk ko mën a laayee biir nit critères yooyu moo war a nekk ci yow bu ko defee ñu mën laa topp da ngay nekk koo xam ne da ngay xam zahir ni nga xamee baatin ba pare nekk nit koo xam ne da ngay mën a laayee biir nit da ngay nekk koo xam ne tamit sa maarifatu bi dafa do baax xam nga ko xam nga yàlla bu baax ba pare nekk njiit loo xam ne njiit lu baax ngay doo waaye bul nekk nag njiit loo xam ne bul nekk njiit loo xam ne nag comme ni waxkat bi wax njiit mu njiit boo xam ne ko mbëtt la ko nekk yàlla fa yaatu yàlla fa yaatu de mbëtt boo ko jiitoo mu ne yaa ngi lekk sama socce soo wanee soo soo su la jiitoo mu ne yaa ngi may yaa dëgg sama genn bi kon foo jëm kon foo jëm kon bul ànd sëriñ bu mel noonu da ngay ànd ak sëriñ boo xam ne soxlawut ci yow dara lu ma yàlla ci yow dara dara lu ma yàlla waaw nag ah Cheikh Sakhir ñu ngi lay ñu ngi lay euh, balu sax lii may wax nii lii may wax nii mu ngi ci moom fa tabaaraka laa sunu xaaliq wallahi mu ngi ci moom waaw ah, li may wax nii moom critères yi moom mu ngi ci moom moom ba tabaarakallaa sunu xaalaka la joxuma lu tax mooy wax loolu xam ne xamuma ko ci moom waaye tabaarakallaa sunu xaalaka la eh, nit ku baax la nit ku am njariñ la loolu rek la ñu bëggee nit nag baax ak njariñ rek bàyyi ne na bàyyi ne na nit njariñ lañ koy bëggee ah, lañ koy bëggee kon am njariñ dafa baax danañu nettali na ci Sidna Cheikh Ahmad Tidiane Chérif moo ko nekk boo demee ci Jawaahirul Maani man fa xaaru na bi ko yonent yàlla Moussa ñaana yàlla ba mu alako suuf si wan na ko fa xasar naa bii bi daaril arda yàlla wanu wanu alal na ko wanu alalam ji yàlla dafa taxaw ne yonent yàlla Moussa kii lu tax nga di ko ñaan yàlla mu lu tax ko alal ah, mu ne ko da nga koo tax dafa nekkul sa jàmm moo tax dafa nekkul sa jàmm moo tax nga di ko def nii xoolal Moussa xoolal Xaaruuna ni mu bone ku dem ba ne yonent yàlla Moussa dafa xëmbal jigéen koo kay xam nga ne koo kay ñaan ko yàlla rek fi sës al ko mu ala ko waaye bi mu ala ko yàlla dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko kii su fekkoon ne yaa ko bind su nekkoon sa jàmm doo ko ñaan yàlla mu ala yàlla ne ko Moussa ne ko sama borom man yaa tax ma mer fa yàq sa diine ji rek yaa tax ma mer kon gis nga mu ngi noonu kon nit dafay am njariñ waaw nit société bi boo ci nekkee da nga am njariñ ci société bi koo mën a dimbale na ko dimbale koo mën a dimbale na nga koo mën a dimbale na ko bàyyi boppam waaye koo mën a yàqal yàqal koo mën a yàqal yàqal koo mën a yàqal yàqal ah bés nga ñëw boo xam ne da ko wax ak ku la ko laajut sa maam ngañ mu ne da ko wax a ku la ko laajut bés dina ñëw boo xam ne da kon nañ fexee di rafetal suñ jikko yi rafetal suñ nekki nii mu ne nag bàyyi mu ne nag soo amee sëriñ bu mel noonu nag jox ko sa bopp jox ko sa bopp taggul bul bul wax naa nii laa bëggee nii laa bëggee nii laa bëggee ndax ndax mu ne da nekkal comme néew néew buñ koy sang du wax ne néew du wax ne nañ ma sange nii nañ ma defee nii nañ ma wëlbati nañ ma defee nii moom dañu sang rek kon boo amee sëriñ bu mat sëriñ bàyyee ko sa soo ko bàyyeewu sa bopp di dox ci calcul di dox ci calcul daga daal ndax mën monde mën monde sëriñ amul calcul boo fa duggee ci calcul daga daanu bu calcul dégg nga booy xool tamit ba chéréetu cheikh bi ba ba chéréetu cheikh bi mooy ah sama nijaay la rek kii sama papa la rek kii sama mag la rek kii sama jëkkër la doo jariñu bàyyi mu ne ah jabar ak doom moom ñoom moom pour ñu jariñu moom lu jafe-jafe-jafe la ndax kii dafay gis ne sama baay la kii di gis ne sama doom sama sama sama sama borom kër rek la kon loolu ñu ba xel jigéen ñu ba xel loolu waaw ba xel loolu bu baax dégg kon dañuy wax ne moo lu Fall Baye moo ko nettali Mouhamadul Hafiz Mouhamadul Hafiz bi nga xam ne moo tax wirdu tijaan wi ñëw fii bàyyi mu ne dafa am taaliba bu mu ko toppoon ñu dem ba mu yàgg taaliba bi ne ne sëriñ bi du taalib du sëriñ ne Mouhamadul Hafiz du sëriñ parce que gis na ci moom loo xam ne gis na ci moom loo xam ne moom d'accord ak moom mu ne kii du sëriñ bàyyi ne mu ne Mouhamadul Hafiz ne yàlla na mut ci moom njariñ waaye ma waaye Mouhamadul Fall mii su gisoon ci man luñ gën a sib du ma bàyyi ndax xam na mooy kan moolu faal ah yéeme la bàyyi bàyyi bàyyi mbiram luy yéeme yéeme la bàyyi mbiram luy yéeme yéeme la yàlla yaataas si barkeem waaw yàlla yaataas si barkeem xam nga sëriñam mooy Mouhamadul Haafis jëm Makka di ñaan yàlla dajee ku ko jariñ ñu wax toog fa muy toog di wirdo moo tax toog ñun taalibe yi sama dog bi bi ma déyee sama dog bi biig sama dog bi bi ma ko jàngee sama am xawee bi jaru ko yow woote ool yàlla rek ool yàlla rek mu ngi ool yàlla rek waaye ñun noonu la ñu def sama dog bii biig bi ma koy jàngi trois heures du matin eh, biig deux heures ma sonné biig naa ma am na koo koy wax yàlla ngay laaj laajal yàlla rek looy waxee loolu dégg nga waaye Mamadou Hafiz fi mu toog lan na ko yow sa sëriñ mooy Cheikh sa sëriñ mooy Cheikh Tidiane te moom xamut bopp moom xamut ko Cheikh Tidiane loolu lu yéeme yéeme la waaw sa sëriñ mooy Cheikh Tidiane te loolu dal na ma Alaaji Abdoulaye dégg nga waaye gannaaw bu mu jàppee ci Cheikh Tidiane ba ba muy ñibbi Cheikh Tidiane am fa Cheikh Tidiane ñaari at ak genn wàll ñetti at si na Cheikh Ahmad Tidiane def na ko boo demee nag bul feeñal dara fekk yàlla feeñalu la kon sëriñ Sango yoonu taalibe yaa ngi noonu jërë nga jéem a feeñal dara bu la yàlla feeñal la rek nga feeñ wa ida adharaka allahu la budda min alzuhuri wa ida axfaaka allahu la budda min alxafaay wa man arada xaqan an wa man arada man laa yuri illa ma arada allah foofu abdu abdoulaye xaqan waaye boo fi buggee feeñ rek bàyyi mu ne nga nekk jaamal feeñ boo fi buggee nëbb te nekk jaamal nëbb da ngay nekk jaami yàlla xaqan waaye moolul faal moom li tax may wax moolul faal moomu gannaaw nag gannaaw ba mu ñibsee Mauritanie moom Mamadou Hafiz gannaaw ba mu ñibsee Mauritanie ba toog di jàngale benn waaye ñëw ci moom rek ne ko jox ma li nga jegee Faas jox ma li nga jëlee Fass mu ne ko man jëlewu ma Fass dara lu ma ay téere téere yaa ngi ne boo bëggee ma da ngeen ko bàyyi bu mu koy nattale benn bis mu ne ko jox ma bii du Tijaan laa wax bàyyi mu ne moo xam ne kon jëfee feeñ na te Cheikh Tijaan dama ne kon boo demee bul jëma feeñal dara nekkal ci li nga war a nekk rek waaye gis nga gannaawum kii na eh, ba génnu àdduna mul faltim jugee Mauritanie dem dem Maroc ba muy àggat Maroc si na Cheikh Ahmad Tidiane dénkaane ne am na ku fiy ñëw nii la mel nii la mel nii la mel bu ñëwee du ma fekk waaye na ko jox sama setala ak sama sajaada bi xaj na ñoom Cheikh Cheikh a xam loolu dama na ngeen ko jox sama kurut sama set sama ak sama setala bi mu barkeeloo ak jamono boobu moyen de transport ni mu jafee waaye ba mu àggee bañ ko xoolee xool ko xool ko ba xam ne kii la Sina Cheikh doon wax ñu jox ko dénkaane ba waaye nag mu bëgg jëriñ mu ne léegi nag gannaaw fekk fu Cheikh Ahmad Tidiane dafay laaj mu bëgg nag ñu jox ko ci gars yi jox ko ci mbóot yi doomi Ali Harazim yaakaar na Abu Yaxza xawma ne ko ne ko ah yow nag loolu indiwul fi woon yow li la mooy gis cheikh soo buggee ñu jox la yenn yi da nga ñibbi Mauritanie loolu tax laa jóg mu demaat mu mu ñibbi Mauritanie delluwaat Fass moo tax moom Fall dem nañu Fass ñaar yoon. bàyyi mu ne nag dafa am teggin mooy loolu maanaam chahid bi dafa am teggin ba nga xam ne waaye asaral tarikat yi mbuuti tarikat yi yani Mamadou Mamadou Mamadou Fall moo ko jëlee Mauritanie moo ko jëlee euh, Fass indi ko Mauritanie waaye kenn kenn xamu ci moom kenn xamu ne moo moom moo ko fi indi loolu sa diggante ak sa sëriñ waaye boo bindee discours bi ne maa ko bind boo dindee discours bu discours bu neexee bu ñuy wax tax nga ne maa loolu baaxul da nga am ak teggin sa kanam sa sëriñ kon taalibe nag saa yu dajee ak sëriñ mel nii na ko jox boppam comme ne na ko a Cheikh Ibrahima waxee parce que yoon lu xam ne yoonu suuf du yoonu du yoonu de bu doon yoonu caaxaan doo ci fekk mag ñi mukk ci àdduna doo fekk mag ñi mukk waaw bu doon yoonu caaxaan doo ci fekk mag ñi mukk ànd ak nag lépp baax na waaw lépp baax na kenn ku nekk rek ak sa yoom kenn ku nekk ak sa yoom kenn ku nekk ak sa yoon waaye bu defee nag ñun ñu bàyyi suñu yoon wi yoonu mag ñu téye ko yàlla ñu ci yàlla saxal bi jaaxee rasulillahi sallam ndax yoonu bëri danger la bëri ay dëkk taalibe nag saa yoo xamee ne dajee nag sëriñ bi na salbul irada di jàng ngañ ko bu bare bëree bëree bëri ci lettre bàyyi bul jéem a tànn dara bul jéem a bëgg dara ànd la sëriñ bi rek ànd ngir yàlla te di ko nemmeeku nag waxtu bu nekk di ko nemmeeku waa di nemmeeku sëriñ bi sëriñ bi lu nekk nga xam ko waa di nemmeeku sëriñ wala balaa loolu sax sëriñ bi te nag moom tamit war naa nekk sëriñ boo xam ne dafa am itte itte lan itte ju kawe ci bàyyee taalibe bi la ñuy li ñu yore ndang leen ko bàyyee Cheikh Mate Cheikh Chérif wax na ci lu bari bul ko jéem a ut bul ko jéem a bëgg li ñu yore bul ko bëgg bi raf di wa raf di ba leen ba wërsëg yi ñu yore ku la jox nag jëlal ku la jox nag jëlal waaye bul imposé kenn dara lu may moo xam ne nag moom moo moo ko warul boppam ko ko warul boppam nag ah kooku nag kooku ñu jëm ñu jëm ko ñu dañ ci ànd ak moom bu ko defee taalibe bi war naa mën a góorgóorlu daa iman di xit di xitmaal sëriñam te bëgg sëriñ bi di nemmeeku sëriñam ci zahir ak ci baatin te di ko ziyaare te di ko ñaanal yàlla dégg nga tey wattu xolab sëriñ bi na koy wattu bu baax bu sëriñ bu mu merloo sëriñ bi nay wattu sëriñ bi ci boppam na wattu sëriñ bi ci njabootam gi ci ay doom ak jabaram ak lépp loo xam ne maslaa am na na ko ci na ko ci wattu bu ko defut Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif nee na képp ko nga xam ne loolu ngi yoon da defoo loolu ba pare topp yoon woo topp yoon woo xam ne yoon bu sëriñ bi tëralee nga ne lu tax mu wax lii bu waxee lii nga ne lu tax mu wax lii bu waxee nga ne lu tax mu wax lii mu ne Cheikh Mouhamed Tidiane Chérif mu ne képp koo xam ne da def loolu loolu mooy sa yoon mu ne yàlla daal dàq ci péem ba kon nag boo gisee sa sëriñ loo xam ne xamoo ko mu ne na nga ko taawil juróom-ñaar fukki taawil soo ko xamee baax na soo ko xamutim nga nga tuumaal sa bopp xam ne yaa xamul yaa xamul bu ko defee ni nga ni mu waxee tamit ngay nemmeeku sëriñ bi mooy li ñuy wax ne jaabir keroog xara xam ndax bi mu xoolee yonent bi gisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xiif lool bi ni ñemee xiif ni yonent bi ñemee xiif waaye mu xool ko bokk tax xam ne kii dafa xiif mu daal di ñëw wax jabaram ne ko yonent bi xiif na de xiif na trop ndax daraan fi ci kër gi mu ne ko waaw mun na ko am naa fi tuuti dugub de wala tuuti sungub mun na ko xaaral ma dem rey suma béy bu ndaw bee dégg bu oh, mu ñëw moo ay quelque ay ay yenn ci taalibe rek ba mu toggee ba mu ñor jabar ji na ko boo demee nag boo koy oo na nga xam noo koy ooyee de waaye yonentu bi du ko yi digal xam nga moom yonentu bi ndigal moom mu koy jëlee ci yàlla moom kenn du ko digal mu ñëw ne yonentu bi sallaa ndax jigéen lim gën a bañ jigéen ju baax laa wax de lim gën a bañ mooy teglu tuuti teglu tuuti jigéen ju baax bëgg ko da ngaa boo tegee ñëpp kontaan loolu la jigéen ju baax di bëgg nañ ci tax loolu mooy ne am njëriñ boo ëllëgee sa doom yi fu ñu dem dañ fa mën a dund fu ñu dem duñu xiif waaw bu fekkee ne ñi nga amee duñu xiif bu ëllëgee say doom fu ñu dem duñu xiif waaye yonent bi Jaabir dem ne ne bi daal ne yonent bi na ko ah, am na lu pare ca kër ga de ñu la ko doon pare parel pour nga ñëw kii ko yonent bi ne dikk leen Jaabir oote na dikk leen Jaabir oote na junne yi nit ñoo ñu añee ci benn bay wu ndaw jun junnee nit ci benn bay wu ndaw ba ñu agsee bi sallallahu alayhi wa ne leen mbaa teggeegu leen ko teggeegu leen ko ci furno bi mu ne déedéet yonent bi daal dañoo ubbi jàngalam jàngalam cay jàng jàngale may jàng ba pare daal bismillah di dugal pour fukki nit di leen soosal di tibb ci ñeex mi def ci fëriñ bi ci ci ay ñànkatan ñuy lekk pour fukki nit pour fukki nit pour fukki nit ba mbooloo mi yëpp jeex yëf yaa ngi bëx bëxi rek yëf yaa ngi bëx bëxi rek yonent bi ne ren nag atam at mu jafe la dee leen dundale at mu jafe la dee leen dundale kon yëf yaa ngi noonu de bu at mi jafee dee leen saraxe deel saraxe te bu ci gis sa bopp deel joxe te bu ci gis sa bopp defalal lu baax a baax a baax joxe ko te boo koy joxe sax ñu ne ah waaw lii moom kanaa dafa dof wala boo ko joxee wàcc sax mu ne kii dafa dof kanaa kon noonu taalibe noonu la war a di baqel sëriñ bi léeg-léeg booy xaar sëriñ bi eh, eh, laaj la du sotti léeg-léeg da ngay toog ne ko jarul sa ngaa ko sa numéro am na wér sa jarul nga koy wax sa orange mën naa ngi dox ak yooyu yëpp jaroo na waa suñ mbokk suñ benn mbokk waa ji daf koo dig waaw bu xakim la xakim waa ji daf koo dig orange ne ko daal orange mën ne ah, mu toog toog xaar xaar xaar xaar dara mu xaar xaar xaar dara mu okk mu ne ko kanaa yow naan orange de orange doo koy naan de kanaa mu ne ko woy woy woy woy woy Cheikh Rasmor bi fàttewu ma ko de fàttewu ma ko waaw fàttewu ma ko <laughs> waaw kon sëriñ boo ko amee léegi léeg dee ko wéef dee ko wéef nit njariñ lañ koy bëggee dee ko wéef dee ko Orange Money wallahi léegi-léeg nga defar lu am am solo ñoo jox ko te kenn du ko yëg magi Mouhamadul Amin mii sëñ Moustapha Ndaw moo ma ko benn sëriñ ci Casamance xaw ma dafeta laa loolu nañ ko dama ko daan waxee xaw ma dafa nekk ci jamono yooyu jamono yooyu nga xam ne jamono xiif loolu léegi xiif amatul sëriñ bi mook taalibe bi sëriñ bi taalibe bi saa yu su su su demee ci comme jamono bii ñu toll jamono bii bu ci kanamatul lay ñambi xàll daam ñambi xàll ñambi xàll yéen xamu leen ko ñambi ñun taalibe yi ñoo ko xam waaw man xam naa ñambi xàll sëriñ bi xam na ñambi xàll waaye yéen ñun du ngeen xam ñaam yéen ñamb ak carotte ak carotte ngeen di xam amutoon bu njëkk ñambi rek benn bés na mu ne man daal dinaa seet daal kii daal ki fi indi li daal kan la ah mu julli bi ñu timis ba rek mu ne taalibe yi bisimilah wéyal leen wasifa leen dem ci nekk bi toog daal daal di ñëw rek ci lampam bi rek bañ lamp bi ba mu ba muy waaj jeex rek mu toog daal di jël xale bi sëpp ko ci daa gi toog toog mu yàgg rek xale bi dugg dugg affaire bi dugg ñambi ji bi mu wanee gannaaw rek gisul sëriñ bi bi mu wanee gannaaw rek sëriñ bi wucc ko daa ji bi bët seet na gars yi ñëw di ziyaare di ziyaare dem di ziyaare dem di ziyaare sëriñ di siyaar dem ba mu yàgg rek bi waa ji rek ba mu ko wanee gannaaw rek mu ne ah, kaay ah yow yaa doon indi ñambi ji fii mu ne ko waaw tax mu ne ko sëriñ gis ngay xiif ma naa la ko indil damay gis ngay xiif ah, baax na baax na ku nangu nangu loo moomu de papay sëriñ bi nee na sëriñam nee na ko nee na ko njaay moytul ma waa Dakar yi si sur waa Dakar yi ne ma sottil ma bii du sottil dara sottil ma bii du sottil daal yëf yi boo ci bëggee jëriñu da nga ci def dara boo bëggee jëriñu da def dara waaye naxante rek doo am dara doo am dara lu may coobara yàlla gi sëriñ bi daal koy jox tur yàlla mu dem dem di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ba mu yàgg ñu jox ko ñu may ko jabar xam nga taalibe moom taalibe njëlbéen taalibe du neex njël njëlbéen ba duy neex mag ñi dañoo wax ne njëlbéen ba ak mujj commerce ñooy am mu jóg commerce ah yàlla yàlla mi ngi jégalu ci commerçant yi rek commerçant loo mu yàgg-yàgg da nga daanu lu mu yàgg-yàgg da nga daanu yàlla bi nasil quran maa indakum yan faddu maa inda laahi baaqin taalib bi tamit lu mu ko nayem sëyal sëyal sëyal commencement du neex lu sa yaay sëy sëy sëy sëy sëy mënul tëdd mu neex fokk nga jaar ci coono waaw fokk nga jaar ci coono kon taalibe yi ñu xam taalibe yi ko jigéen ñi ñu xam loolu bu baax waaye sëriñ bi nag moom ñu jox ko tur yàlla muy liggéey di liggéey ñu may ko jabar joo xam ne lu tànneef sax gannaaw gannaaw yorewoo dara gannaaw yorewoo dara gars yi ki ñuy may jabar léegi mooy ndax am na kër ñu ne waaw mu ngi dëkk fii ci Almadi dëkk Almadi la dëkk ko déwén nañ ko may jabar waaye dana dem Singapour sax moom fan yële jógee Singapour ah fan yi la demoon Dubai fan la demoon Chine kooku la ñu óolu waaye koo xam ne amewut dara. dara dara dara dara lu may yàllay kese ken du ko may te fekk waajaa ngóob nag waajaa ngóob waajaa ngóob waaw waajaa ngóob de ndax yonent bi li mu wax mooy bu leen ñëwalee koo xam ne am na jikko bo rafet may leen ko ko am jikko bo rafet bu ngeen di may leen ko waaye ay taar ah taar nag baax na baax na de waaye nag boo loo taaru taaru taaru taaru boo guddee fan da nga war ma lii la waaye nag taar moom baax na moom ah de baax na di mu taar baax na de taar baax na trop waaw ah, taar baax na trop dafay yombal wërsëg kon ci gàttal ndax sëriñ bi la ñuy déglu sëriñ bi la xaar lañ bëgg a wax ci wax ji du jeex mukk boo ko bëggee topp doo fi jógee waaye daal li ma xam daal mooy nañu ko waaw ma ne ma ma agg sa waajoo sëriñ mu del seeta ci sëriñ ko sëriñ sonn naa de ma turu yàlla sëriñ sonn ma turu yàlla ñu ne ko turu xam nga turu yàlla fa gàddu xet turu yàlla moom fa moo tax sikkar du yomb ah mu bindaat kayit rek jox ko mu ne ko ah, demal rek demal rek waaye gannaaw gi nee na sëñ Moustapha ne na ma ñu ngi koy defar ay ziyaare ak gàmmoo foofu ca dëkkam ba kon mbir yi njëlbeen gu du neex njëlbeen gi foog mu métti foog dangay jënd nag boo jëndee da nga am taalibe nag su bëggee yi ni muy xitmaa nii bàyyi ma ne day ko joxee addi yow booy joxee da am booy joxee li ngay joxee da nga koy am loo joxee rek daf lay yomb kon yàlla yàlla barkeel ziyaara bi yàlla yàlla barkeel ziyaara bi yàlla yàlla barkeel bi képp ku fi ñëw aajo boo fi mën di ñëwee yàq ak bokk nekku ci nekku ci sax amul jox sax yàlla yàlla faj sa aajo fu waaye jógee yàlla nga dellu ci jàmm dellu ak yokku ci zaahir ak ci baatin yàlla mën na ko yomb na ko yàlla yàlla def loolu jamaa bi yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na ko yàlla yokk ci daraja yonent bi sëriñ bi yàlla yàlla gën laa wattu gën laa yokku sa mbir may la fan wu gudd la bàyyi waxoon ci alaaji Abdoulaye ne ko bu guddee fan dana baax ci ñun waaye yow tamit boo guddee fan dana baax ci nit ñi da baax ci réew mi da nga baax ci taalibe da nga baax ci soppe danga nga baax ci ñëpp fa tabaraka laa sunu xarate na yal na yàlla may la fan bu gudd taxaw nga ci réew mi loo xam ne taxaw nga ci réew mi loo xam ne ku la jegewul ñi la jege yëpp xam nañ ko li nga def ci réew mi moom moom bu ñu doon fay dañ laa war a fay wallahi ba kenn ñemewut a ànd gars yi moom la jóg ànd ba kenn ñemewut a jóg waaw ba kenn ñemewut a jóg la jóg ànd ak gars yi keroog bay escorté waaja nga xam ne kenn mënut a dugg kenn ñemewut a dugg moom moo am fitam moo am fitam parce que xam ne li muy dox dëgg la moo am fitam dem dem seeti waaja moo am fitam dem seeti waaji dem seeti euh, euh, comme nu mu waaji mu tudd président euh, kii ministre Senghor su am premier ministre Sonko hmm? kon kooku te loolu mooy li gën a tuuti lim ko defal ci ay dog ak lim ko defal ci ay ñaan yàlla loo xam ne moom rus koo tudd rus na tudd kon waaye nag yow yàlla nga doon defal rek defoo pour waa jox la dara dégg nga defoo pour yaay kenn jox la dara ndax bërki démb rek euh, ministre bi ko seet si fii bi ko wax ne ko sëriñ bi waxoon nag ay doléance am mu ne ne déedéet déedéet déedéet buñ ko wax benn doléance ñun luñ lépp luñ soxla nañ ko ci yàlla sëriñ bi loolu loolu mooy mbir loolu mooy mbir yàlla na yàlla taxawu zahir noo baatinan képp ku fi ñëw soxla jëkkër yàlla la yàlla may jëkkër ku fi soxla jabar yàlla la ko yàlla may ku fi soxla doom ju baax yàlla na ko yàlla may ku doomam tukki mu jaaxle ci moom yàlla ko yàlla tegg yàlla faj aajoom ku fi am ku ràgg yàlla na yàlla faj aajoom réew mi yàlla fi yàlla doole jàmm doole fi sutura doole fi taraanga doole fi naataanga yàlla man na ko yomb na ko yàlla ñu ko yàlla defal yokkal ñu sëñ aaxe bu yàlla na yàlla yokk barke euh, karamam leer doole barkel gannaawam bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam saxal ñu ci yoonu Mawlana Cheikh Ibrahima tëbbu ñu ci yoonam mën na ko yomb na ko yàlla yàlla defal ñu loolu may ñu nawet ak barke may ñu góob bi rafet bokk ci ñay muuro bokk ci ñamey sant bokk ci ñay sant ak ñamey dolli dolli gu xotti baax yàlla mën na ko yomb na ko yàlla ñu ko yàlla defal innahu wali dalik wal xaadir wala allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim muhammadin sayidil awalina wal axirin wa ala alihi wa sahabati ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi ndokkeel cheikh saxiir Njaay al muqaddamul baraka wal mujahidul kabir wal aalimul allaama di ko ndokkeel di ndokkeel tam jamiyeetu birri wal islaax di ko jaarale ci président di ko jaarale ci mboolem membre daayira bi waaye itam di nuyu cheikh Baye ibnu cheikh Mahamadul Aqib ibnu cheikh Ibrahim di ndokkeel tam njabooti cheikh Aqib yëpp ñi ak ñi di nuyu itam gan yi fi teew yëpp di nuyu docteur Lam moom wa huwa minna ala kulli xaal ma maa ngi nuyu docteur Lam fa huwa minna ala kulli xaal di nuyu itam monsieur le maire tasawar nañ ci tudd Cheikh Sakhir waaye itam di nuyu muqaddam yi fi teew yëpp dégg naa Cheikh Ousmane Konté sama ginnaaw ak mbooleem soppe yi fi teew euh, di ñaan yàlla ziyaara bi yàlla na ci yàlla def barke incha allah te am na di nuyu suñu sëriñ eh, Cheikh Mouhamadul Bachir moom suñu xarit la suñu wari la waaye suñu sëriñ la ndax man allamaka xarfan waxidan fa huwa mawlaak man allamaka xarfan waxidan fa huwa mawlaak te ko te moom nag moom Cheikh Bachir allamana xurufan kathira wa axasna anhu kathiran wa axasa anhu kathirun jàngal na ba jàngal na ñoo xam ne tey boo ne jàngal na leen sax da nga ne ah loolu nu mënee ne xam nga soo ne Cheikh Bachir jàngal na Cheikh Mouhamad euh, Mouhamadul Mahi jàngal na Cheikh Mouhamad Nazir jàngal na Cheikh Ousmane Cissé njaboot suñu Aliou googu ñooñu ñëpp moom jàngal na leen kon moo doon suñu magu taalibe ñu xam ko ci xam-xam bëgg xam-xam ak sonnee ko waaw Cheikh Bachir ku yàgg sonnee ci xam-xam la sonnee ko itam waaye nag yàlla boole ko ku ko xam ne ku taseeg moom ci sa dund gi rek war nga sant yàlla bu baax muy Seydi Ali Cissé radiyallaahu anhu dama am suñ mbokk mu nekk fii ci ginnaaw ahlan Cheikh Abdoulaye Niass ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Abdoulah ibnu kon am naa yaakaar lu fi waay ko yàlla nangu yal ko yàlla barkeel ah, ma teew fi nag di député maire waaye di taalibe fi Cheikh Alioune Bey teewal fi Almourou Ndiaye teewal fi monsieur le maire Mbaye seen teewal fi monsieur le maire Abdou Karim Sall ah loolu yàlla moo ko def sama diggante ak ñoom suma ma teew rek ñoom laa fa teewal eh, nganta am na xëy na gitte jàpp na leen waaye seen xel yëpp ñu ngi fii ndax kii wootee moom la yàlla defal loolu wax na ko léegi jarbaat la waaye nag suñu sëriñ la lool nag si li ko yàlla defal mu am nag lu bari lu ma am loo xam ne bari na ay ulama ay muxaddam yoo xam ne amuñu ndax dañuy wax ni kenn du nekk yoon sa soo xeet ñu nangul la waaye moom ak sëriñam ay mbokkam ñoo ko nekk nangu nijaayam ni toog Abdourahmane ànd ak njabootam yëpp gi xam ne ba ko joxee ndigal fii la ñëw ñëpp ñu ci ginnaaw li tax ñu gën a bég ci moom mooy suñu xale yëpp la ma daloon moo leen dal ba may jël weer bi fa ma ko jëlee ma daan tux caaxaan du fecc baal di dem di guddee wàcc du ma julli du ma woor ma def la la ba ma xëy génn ci ba set wicc nekkaat ci beneen xaal moom Baye Chahir noonu la nekkee suñu doom yi fu mu leen fekkoon démb ak tey fu mu leen fekk macha allah waaw loolu daal fa mu ma jëlee fa mu jëlee ko gën waaye moom fa mu jëlee suñu doom yi ak suñu sët moo gën fa ñu nekkoon kon loolu ba amee ci moom eh, dañ ci am mbégte te dañ ci am kontaante te dañ koy gëm. ndax jaar nañ si ku dem ba ñu beral la ndaa ndax pône saari taliba cheikh bañ pône nga dem ba xëy bàyyi ko nga dem ba def sa waxaaf muy fukki isib ak juróom bis bu nekk kooku nitu yàlla moo ko mën kon moom loolu lañ gis ci moom moo tax ñu taxoo ko moom te nag ku la bëgg a jëriñ àllaaxira foog mu xam sa àdduna te moom c'est un intellectuel fort sur le plan islamique mais sur le plan religieux waaye ci wàllu àdduna boo toogee moom waxtaan moom dafa naan kii fan la jàngee ñu ko xam état xam nu état di doxee boo wéeteeg moom booy dem sa xol day set kon nag Cheikh Sayir ñu lay dellu ñaanal yàlla gën a gudd sa fan yàlla barkeel la te fi nga teg sa loxo foofu la yàlla nag mooy maye te la mu doon maye ba léegi jeexul ku sàkku liggéey am ngërëmam te ku yàlla fal ba pare nag daf la lu lay def boo jëmee ba joxaat ay pexe pour sax fa yàlla jéppi ay pexe yàlla da lay jéppi lu mu bëgg nga def ay jëf jëf nag mooy li mu def xale yi fekk ko dara mu fexe ba nga nekk dara fexe ba ngay jaamu yàlla di julli di woor di sikar di liggéey fonk sa ndey fonk sa baay te joxagul nit tur wu lay dof loo léeg-léeg nga dégg ko yàlla day dof kenn ku dof rek da jox moo composé da jox moo composé moom nag li muy def xale yi gis nañ ko macha allah benn waaye daf ma fekk fu ma toog sama atelier mun ma waaj li ngay jàng alxuraan parce que mun naa dofloo ma ne ko alxuraan dofloo ah man de mosuma ko dégg te booba sax jullee su jàppee midi balaa tisbaar ma am fukki loolu nag ah ku ñu nàmpatul ku ñu tëbbul ku amul kilifa mënu ko am c'est pas possible donte nag sama baay bu baax la imaam la woon suma waajur bu baax la waaye nag fañ ma fekk ñu ma fa bàyyi woon ba léegi du ma nekk maire bay nekk député kenn wëlewu wuma xam-xam kenn wëlewu ma daraja kenn wëlewu ma dara jikko rek lañu gis ci man yaakaar ne su ma dénkee dinaa jubal dinaa jubbanti dinaa jub loolu nag lay sakku ñaan toujours fu ma toll mooy koo xam ne dafa nekk maire ba pare nekk ci daara ji di bilaal di ibi jàkka di salaatu di jottali bu sañoon la mu yor mooy gën ci ñëpp yor ndax nit ñi sawar jox ko waa daara ji ndax diine ji réew ñu àddina bi waa daara ji ñoo ko war a yor kenn war ko yor na ko yonent bi yore woon nekk amir nekk président nekk yonent bi moo war ci nit ñi nga nekk maire nekk député mais nekk nit l'islam Cheikh Ahmed Tidiane Sy yàlla yokk leeram dafa wax ni tànk imam bi génnewul ci tàkka ji dem ca mairie génnewul ci jàkka bi dem ca magistrature ba atte nee def des kon nag loolu mënut a ñàkk ci xale yi ngeen góorgóorlu yi ci daara yi ñu am fulla am fayda politique baaxul politique baax na dugg leen ci biir à une façon religieuse ngeen maandu jubal jub ànd ak liggéey yi ñu jàppale leen ngeen yor réew mi teg ko ci diine ndax diine mooy tawu adduna te ñu ñëpp adduna moo taawu suñu diine adduna taawu suñu diine nag du dara kon nag diine moo war taawu adduna kon ñu ngi encouragé xale di encouragé taalibe yi wax na ko léegi ay taalibeem depuis 2003 tey ay cadre lañu ils sont au haut niveau ku leen dénk réew mi daañu bàyyi xel seen bopp ndax daañu bàyyi xel yonent bi bàyyi xel bàyyi bàyyi xel xaaj saxir bàyyi xel sëriñ si baax kër yàlla nag li si Ahmed daal wax rek ci engagement di ko wax kër yi santuñu si santuñu ñas yàlla la sant moo tax nag ñëw fekk cheikh bu sant Ndiaye macha allah li lépp wër ko bu doon dafa sant ñas kon duñ si bokk moom du si bokk keneen du si bokk waaye turux boo dem danga fekk sant Diop sant Ndiaye sant Diagne fees dell te sëriñ bi koy sol moo koy moo koy jàngal kon sa kër kër yàlla yàlla rek la sant kon Cheikh Saïd ñu ngi baax a baax di la gërëm di la ñaanal yàlla sàmm la yàlla gën a guddal sa fan yàlla barkeel njaboot bi barkeel taalibe yi ah gudd na waaye maa ngi ndax it kilifa yi nekk aussi ñuy wax ci wax yoo xam ni macha wax yi nos la xanaa la rek waaye lu mën a xew daal ci turu maire yëpp nag turu arrondissement Thiaroye ñu yëpp ñu ngi sant Cheikh Sayir ndax fu nekk am na fa taalibe boo demee mais la région de Dakar mais le Sénégal ndax ku am sa njaboot ñu la koy jubantil nga nekk kilifa nekk maire soo sañoon sa njaboot yëpp dañuy yiw dañuy set dañuy am diine te macha allah gis nañ xale yi bu àjjuma ñëpp dañuy jóge fii dem ba këram def fa seen xadara def seen wasifa ñaan dem liggéey seen liggéey sonaluñu kenn taxaluñu kenn ku si jàppoon tamit dugal na ci biir li ma wax léegi rek mooy da ngay falu yàlla fal la nga fàtte yàlla di def ay pexe pour bañ nit falu te ki war falu yàlla pare na ci moom ba pare moo tax bu yàlla falee bul def pexe waaye defal jëf joo xam ne dina tax nga sax fa kon ñu ngi koy sant bu baax a baax ah sant taalibe yi ñu jàppoon tamit ñu ngi ñaan yàlla ah seen bàkkaar yëpp suppé ko foofu ah man sama diggante moom bare na ñoo xam ne jóge naa suma assemblée dem seete leen ca prison ba ndax suñuy doom lañ ak suñuy jarbaat Baye Cheikh daal ñu ko sant baax a baax gis nañ ay ñaanam gis nañ collaboration bu sincère bi mu ànd ak le président Sonko boobu dara xewul ba lii xew kon am na lu ko yàlla waroon ba tax mu topp ko kon ñu ngi sant guddal waaye daal mbégte rek la ñu am ci bés bi mbégte la ñu am ci xarit yi di nuyu docteur Abdoulaye Lam di nuyu suma doomu sëriñ Aliou Sada ci njaboot ci kër gi bari na xaale yi xam naa leen ñëpp mais ñu ma xamul démb tey tey ñi ma xam dama kontaan ndax ku sàggaloon démb tey ngay kilifa ku sagaloon démb tey ku la gis naaw dama ni ah yaay defu ko bàyyi defu ko bàyyi sakk bi moo xam ne suñu yoon. wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa wa barakaatu. Eh, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar. di ziare mbooloo mi nga xamante ni ñoo ànd ak yow ak mbooloo mi nga xamante ni xew-xew bi moo leen fi indi. ñu ngi nuyu Cheikh Bachir Thiam. ñu koy ziar di ko laaj wa pays ba yëpp eh, di am kontante lool ci daje bi xanaa li ma xaw rek mooy wuute gi ma wuute waxtaanu Cheikh Sir tabarakallahu waxtaan wi nga xam ne sëriñ bi moom waxtaan na ko dégg nañ ci lu bëree bëri waaw ñu déggee ci ne lim doon waxtaane mooy la yàlla wax ci alquranul karim innama almuminuuna alladina amanu billahi wa rasulihi wa ida kaanu maahu ala amrin jaamiin lam yazhabu xata yastazinu jullit ñi gëm yàlla gëm yonentub sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne yonent bi sallallahu ci ab daje moo xam dañuy teg plan pour guerre moo xam dañoo daje pour jaamu yàlla wala dañoo daje pour weccuwante ay xar manti doon kenn ci ñoom du sañ a pousser di jóg di dem te du dangaa ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga ñaan ko ndigal ndigal loolu nag soo ko ko ñaanee moom moo xam daf la koy may wala du la ko may ça dépend ci situation bi lu mu laaj su ne la toogal amoo droit su ne la demal mënatoo toog foofu da ngay dem loolu mooy li ñuy tuddee almutaaba moo tax sallallahu alayhi wa sallam bu ajjuma masaan jot mu yéeg ci kaw minbar bi di xutba kenn am soxla boo xam ne daroori la nga bëgg a génn jumaa ji sañoo tëb rek génn jumaa ji da ngay taxaw ci position boo xam ne wóor na la ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana la gis nga def ko signe pour woon ko ne ko da am soxla bu irsa nga bëgg a génn su ko defee moom it mu def la signe ndax ma ngay xutba ishaara rek la mën a def mu junj la ne la demal wala mu ne la toogal loolu lañ doon dundee ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon loolu dañ ci déggee ne ki nga xam ne moo wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sëriñ bi muy borom xam-xam bi muy nit yàlla ki waliyu yàlla képp ku toog ci xadaraam moo la tënk sañoo poussé place sañoo noyyi ci lu duhul ndigalam sañoo yëngatu ci lu duhul ndigalam lépp looy def dafa war a fekk ne loola am nga ci ndigal lu bàyyeekoo ci moom loolu mooy teggini ki nga xam ne toog na ci jotaayab nitu yàlla su ko defee ñu xam ne topp dafa am jeexital ci ki ñuy topp kiy toppaate waaw képp koo xam ne dafa wuute ak sa moo xam li nga wuute wuuteeg moom lu ñuy déeyoo la comme wàllu secret la mbóot la walla lu fés la kooku day perte na ndax lu ñuy tuddee a sitqu du amati ak dëggu ñàkk na ko ndax wuute ga mu wuutee ak sëriñam te li am mooy sëriñ bu mu mënti doon boo xam ne dafa jokk ci yàlla bu la xasee sànni beneen sëriñ du la mën a gàttandu ndax ñoom ñëpp su fekkee lañ nekk benn bi la mooy la ñoo benn buntu ci la ñuy jokk kon bu la kii bu la bàyyi saxiir sànnee mbëq la beneen sëriñ dootu la mën a defar kon ku yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi sidna aboubacar sadiq bàyyi la sidna omar ibnu xataab bàyyi la ousmane ibnu affan bàyyi la ali ibnu abi talib bàyyi la kan moo la mën a defar kenn mënu laa defar uh-huh. kon nañu ànd ànd ak dëgg ànd ak kóolute am yaqin ci ñi ñu yàlla booleel ci yàlla loolu rek moo ñu mën a may yàlla kon sëriñ bi xam naa ne conférence bi eh, imam Bachirou Thiam def na ko ba mu yàgg waaye daal ñoo xam ne alquran jàngal nañu i nekkee ak suñu sëriñ la tarfoo aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jaari baadikum li baadi bu ngeen toog ak sëriñ bi al yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen yëkkati seeni kàddu ci kanamam nañ ànd ak yar waaye buñ koy woo nañu seet la gën a yell gën a jekk ci ay turam ñu di ko ko woowee yàlla dafa wax ne bu leen woowee yonantu bi comme ni ngeen di wootantee de leen ko wax ya rasulallah de leen ko wax ya nabiyallah ya afdal al wara ya sayidi al leen ko woowee noonu waaye bu leen ko woowee rek ya muhammad yabna abdillah mu ne loolu bu leen ko waxee noonu parce que yéen noonu ngeen di wootante directement rek ah moo tax lislaam dafa bëgg ñuy woddu turu kilifa kilifa bu nekkee ab sëriñ daara nañ koy wax sëñ daar su nekkee ab imaam nañ ko wax imaam su nekkee ab alaaji dem màkk nañ ko wax alaaji wàññiwul dara ormal la waddu nañ tur bi bu ne amee bu tafsir woon nañ ko wax tafsir waaye tafsir wa noppi ñu naan laan masamba loolu maanaam ñàkkee orma la yàlla dafa bëgg ñu jox ay nitam orma moo tax nañuy seet tur wi jekk ci sëriñ bi ñu di ko ko woowee li nga xamante ni moom lañ daan defal yonantu ba bu fi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul ñi ay xalifaam ñoom ñooñu lañ doon jox yonantu bi ñoom lañ koy jox kon sëñ bi ñu ngi lay ndokkeel bu baax di am mbégte ñun jotaay bi suñu jotaay la ndax ñun ak sëriñ bi dëgg-dëgg cofeel bu rëy moo dox suñu diggante ak moom jaxasoo bu rëy moo dox suñu diggante ak moom te loolu yëpp moom moo baax ubbil ñu xolam ubbil ñu ay buntam bañ man cee xacc ajjuma ju jot xëy na duñ jokkoo ci wax waaye danañuy jokkoo ci wàllu euh, internet bi ndax euh, loolu ci moom la su ko defee kon dañuy ñaan rek loolu gën a jëm kanam gën a yaatu ba nga xamante ni yéeneem ci taalibe bi lépp dana sotti incha allahu taala. waaye imaam Mansour kaay jox sëriñ bi karo bi di jox ko baay mu jox ko sëriñ bi waaye nag nga gërëm sëriñ bi. ci taalibe yi ndax sëriñ bi gërëm na taalibe yi ñaanal la leen mënul cee teg leneen waaye imaam gërëmal sëriñ bi nga joxal ñu ko tableau bi nga xam ne moom la ko soxna yi jox la illa allah la ilaha illa allah ala aus billahi min asheytan irajim bismillahi rahman rahim alhamdulillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi nuyu ñi fi teew yëpp di jël nuyoo bi di ko teg suñu loxo sëriñ Mawlana Baye Mouhamed Sakhir di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dolli gudd fan ak wér yàlla wattu ko ci zahir wattu ko ci baatin di nuyu ñi nga xam ni ñëpp teew nañ fi di jiital nuyoo bi suñu sëriñ di ko teg ci loxoom mu jàllale ko ci ganam yi tedd yi nga xam ni teew nañ fi ndax ku am ay gan di ñeete ndax yonent daf ñu wax ne man kaana yuminu billahi wa yawmal axar fal yukrim dayfahu bu gëm yàlla gëm bis penc na nga teral say gan sëriñ bi nag woote na walla taalibe yi woote nañ sëriñ bi woo ay mbokkam ak ay xaritam ak ay muxaddam yoo xamante yu sedd ñëw teew fi lii dafa neex ñun tey suñu xol dafa sedd sëriñ bi ñu ngi lay gërëm sëriñ bi dafa baax rek naan taalibe yi dañ ma defal yi dañ maa def ñu defaluñ dara sëriñ bi sëriñ lépp mooy def lépp sëriñ bi taalibeem buggul taalibeem bëtam bi xonq wallahi loolu quraanul azim sëriñ bi ni mu amee ñun dañoo dem ba xam ni sëriñ bi moo ñu xitmaal ñun xitmaalul sëriñ ci koo xamante ni otoom bee nga xam ne mooy yéem kalaam doolu ko def taalibe yi nga xam dañuy ñëw sax kër ga guddee danaan leen abbas taal oto bi yóbbu leen wala moom mu ànd ak yow sax dox gunge la ba sa buntu kër mu wàññeekoo ak yow taalibe bu nekk ci xat-xat gis nga ni say waajur di ko tax ni sa waajur di taxawe nu ko sëriñ bi di taxawee sëriñ bi ñun dafa dépassé cadre bu sëriñ ak taalibe ak ñun dafa jéggi lool wallahi loolu Qur'aan al-Aziim jéggi na sëriñ ak taalibe ki dafa moo raw suñu papay sax leen def si ñun xëy na dañee waajur fondement la nañ ci def ay birig yi baax ñun amuñ ay birig ñun amuñ kenn sëriñ lépp loo xamante ne lu baax la sëriñ bi mu ngi ñu koy wax defee leen nii defee leen nii ba ci actualité sax bu xewee ma Ba mi gën a ndaw ci ak ñoom Babacar dafay ñëw toog ak ñoom ci salle bi di débat ñoom ci loolu. dañ mun ñooñu rek mun nañ koo téye ba ay quatre heures du matin cinq heures du matin muy wax wax yoo xamante ne nii yow da nga yéemu sax da nga naan kii boo ñëwee sax doo xamee sëriñ beeg taalibe yi dee dee sax nit dana ñëw di ko seet sax boo xamul turam bu ñëwee rek kii mooy sëriñ bi sax da nga naan bi yow munoo wax sa bopp waaye ñu lay gërëm di la sant wallahi mënuñoo wax ndax suñ xool dafa sedd mbooloo mi teew ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax lii dafa neex trop nga woote ñëpp ñëw si la képp ku waay nekk ñu ngi lay gërëm di la sant rawatina ak ñi nga xam ñu ngi bitim réew mbokk taalibe yi nekk bitim réew sànq ba tey ñi ñaa ngi woote di naa nañ gërëm sëriñ bi nañ gërëm sëriñ bi ñoom ñëpp ku ci nekk tuur nga sa ñàkk def ko ci ñoom ñëpp ku ci nekk yónnee nga sa addiya ñi nga xam ne yëgal nañ leen ñoom ñëpp ñi indi seeni soutien mu bëri mu néew ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax loolu rek dafa neex enveloppe ngi waxoon ñu soxlawul sax xaalis waaye teewaay bii dafa neex bëri na nit tant na ay tantam lu ay saisam ñëw teg woo nit ñu kenn ñëwut waaye sëriñ bi ku di ñëw ndax daf ko liggéey sëriñ bi loo liggéey fii lépp loo yéene sa njaboot yàlla na ko yàlla taxawu képp ku lay noonoo day sonal boppam rek day dellu ginnaaw rek du avancé mu xool bu bon moo koy rey billaahi xol boo naree rey boo nee safara di jëm ndax yonent bi moo ko wax man àndaan ni waliyan faqat ansa bi xarb ku noonu sam wali ma song la xeex geer te sëriñ ge wali yàlla xaqan la wali yàlla xaqan la ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax kàddu yi du gën a gudd ndax comme xam nañu jotaay bi fi mu ne nii ñu ci mujjanteel bi bu ko defee taalibe soxna yi nga xamante ni soxna yi amoon na tablo bu rafet buñ defan ci njiit seen njiit ramata ramata ci xale yi defoon nañ benn tableau ñu ne dañ koy jox sëriñ bi e, décoré ko ko ndax tableau bu rafet la macha allah seen sëriñ la sëriñ bi taalibe ñoo la ko jox waaye tamit duñ fàtte ñi nga xamante ne ànd na ñoom si liggéey bi te jiitu ñu ngi sàkku sëriñ bi balaa ñu defal leen ñaan ki ci mujj rek mooy soxna Ndeye di sa ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñi xam ne jiitu nañ yàlla yërëm leen yàlla xaare leen àjjana ndax ñoom ñëpp dañoo àndoon ak ñun ci liggéey bi àndandoo rafet boo xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi doon liggéeyal sëriñ bi tey ñoom ñu def ñu def ñu jiitu ba ci ñoo xamante ni rek soxna ndey di ñuy laaj addiyeej tabaski rek joxe woon na addiyaam ñoom ñëpp kenn bu ci nekk da ngay xidmaat sëriñ bi ci loo mën a ak loo mënut kon gudd fan ak wér yàlla wattu la ci zahir wattu la ci baatin képp ku fi ñëwit ñu ngi lay ñaanal yàlla nga dellu ci jàmm ak salaam te waaye bi daal kontaan nañ ci trop si gàttal yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di sant soxna yi nga xamante ni ñoo nekk ci xadara bi buñ jiitalee Zeyda na mi nga xam mooy seen njiit tudd nañ soxna yëpp ñu ngi koy ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yii di ñëwaat mu gën a ñu fekkee ko jàmm ak salaam ba mu a gën a teral suñ sëriñ ñun lépp luñ defal suñ sëriñ xeet nañ ko defaluñ ko dara defalukuñ ko dara sëriñ bi liñ ko dañuy xidmaat lu pare jëlaat li ñu defaloon tableau bi rafet na trop macha ñu jox ko sëriñ bi bu ko defee après ñu jëloon yaa seex kàddu ndax mooy suñu njiit macha

الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظهر asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sant yàlla bu baax di ko gërëm ci ay mayam ci ñun di wax alamin sant yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sant yàlla ak ay tëbbam ak ay irsaadaatam sant yàlla feeñ waaye Mawlana Cheikh Ibrahim ci tarbiyaam ci maarifatoom ci ay déggam ci soog gi ñu soog ci yoon yàlla loolu yëpp sant yàlla di alhamdulillah di sant yàlla di sëriñ bi ma booleel ci yoon yàlla nga xam ne su ma sóobu ci yoon yàlla ak su ma oote ci yoon yàlla yàlla moo ko jaarale ci loxol góor bu tedd di kenn ci ñu tumuranke ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa di ko tumuranke ci mboolem asxaabu Cheikh Tidiane rawatina asxaabul fayda bi nga xam ne ci la bokk na Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqib radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm lii ci barke yi ko yàlla defal ci la bokk ci barke yàlla defal sëriñ bi suñ jotaay bi ak jotaay yay ñëw ci kanam incha ak jotaay ya ci barke yàlla defal sëriñ boobu ma tudd nga xam ne bàyyi waxoon na faro farobtul qalbi maa seyqi umdatun wal istiqaamatun kabir la yajiu an alfayda illa bi wasitatihi wa in kaana al awliyaullah kulluhum haadina muhtadina ngeen baal ma dama xaw a soj euh, moo tax wax bi léeg-léeg du xaw a kii noonu bàyyi dafa wax mu ne nga takkee sa xol ànd ak sëriñ bi na fondement bu dëgër la xol la wax nag xol fondement bu dëgër la waaye njub lu màgg la na may gi ñuy wax faydu te mooy ay ay tëbb yàlla yu yàlla y ci xolu jaam ak rooxam jaam bi di am sibxu tawajjuh ilallah mooy ak dëggu ci jublu gi mu jublu yàlla loolu yëpp baatu faydu da koy yóbbu faydu dana firi maarifa dana firi ay anwaar dana firi lu nekk moo tax mag ñi ci seen mbind yi danañ koy jëfandikoo ci bunt bu nekk ay googu doo ko am lu may ci buntu sëriñ bi donte waliyu yàlla yi ñoom ñëpp ñu jub lañ waliyu ku jub rek la mën a doon te ay jubalaakoon lañ ndax seen yoon mooy woote ci yoonu yàlla yow ci buntu sëriñ boobu rek ngay ame may googu maa ngi sant yàlla yàlla defal na ma tawféex xol bu sell bu dëggu la àndee ak suma sëriñ moo tax duma ci faral di wut sax mbindeef léeg-léeg mu ko seede donte ay nit lañ nag dinañ def yëfi nit waaye yàlla moom moom xam na sëriñ bi it waliwu bu mët la te borom basiira la te borom kasfu la moom xam na xolu taalibeem bi xam na ruuxu taalibeem bi moo tax suñu dund incha allah lépp dafay bokk ci ay barkeem moom moom si boobu Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqib Ibrahim Niass Euh, ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi jàllale ay nuyoo di nuyu doomam ji fi teew di Cheikh Baye ibnu Cheikh Mouhamadul Aqibu al imam al alim di nit ku oyof nga xam ne mbokki taalibe yi ñoo ko invité man tamit ma ànd ci invité bi invité wu muy ñaari invitation te benn lañ maa ngi mbokki waaye li tax ma waxee noonu ñoom dañ ko xalaat moo tax ma ma waxee noonu moom li ma njort te gën ko mooy moom teew na waaye teew na te te fekk dafa teew nit mën naa teew te fekk xolam teew nit mën naa teew ci barab te fekk xolom dafa teew nii rek waaye li ma njort moom teew na xolam teew na dama koy wax taalibe yi ma ne ko léeg ma gis nit sax ma maslaa ak moom xam naa ne kii sama noon la waaye comme wanuma ko duma ko wax dara ndax xam naa ne lor ak njëriñ ci yàlla rek la nekk waaye moom dafa teew ak jëmmam ba pare teew xam ne lii li barke baayam la yal na ko yàlla fay déplacement bi nga jógee Medina Baye ñëw fii bàyyi say itte yëpp te xam naa ne munoo dem géewu yàlla bu ëpp géew bii géew boo dem rek day nuroog moom parce que fii ca toolu yàlla la toolu daawa la mu zaakar lañ fiy def ci yàlla alxuraan la zikar lañ fi def santaane yàlla la te ñaar yooyu amuñ majlis bu ko ëpp mën nga am nag majlis bu ko gën a taaru gën ko ëpp mbooloo wala gën ko ëpp alal waaye majlis la rek ci majlisu yàlla yi tabaraka wa taala kon boo teewee fii euh, dañ ci bég dañ ci kontaan nit la ku oyof waaye nit la ku mën ku ku a jox nit orma ku am teggin la ngay waxtaan ak moom leen di waxtaan voilà nga yëg ne kii moom yëg na ne kii may waxtaanal nit la te pourtant li sëñ Cheikh Tidiane si di wax mu ne doomi sëriñ boo xam ne dangay ngay judd ñu lay sumil ñaari dàll di la sumil mbaxana nga dem ba màgg ci loolu mu ne kuy jëflanteel yow yaakaar nit ngay jëflanteel fekk dof ngay jëflanteel parce dafay yaakaar ne mbindeef fi yàlla de leen bind rek pour ay objet kaay alhamdulilah moom ci sëriñ yi fonk nit ñi ci la bokk moo tax ñun mënuñ lu may di ko delloo cër boobu rek ci wax bu baax ak jëf di lanteeg moom ci lu baax di ko ñaanal yàlla di sàkku it mu di di ñaanal yàlla comme ni suñ papa Cheikh Mouhamad Basir wax ko léegi ku ku óotu si ku mel ni Cheikh Mouhamadul Aqibu ci ragal yàlla ci mbaax ci maqama ci martaba ci sell yow am nga sas bu rëy rëy rëy loolu sànq Seydi Mouhaadar wax na ko kon Cheikh Baye yàlla na nga sut sëriñ bi fan Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqibu at yim dund ci kaw suuf muy quatre-vingt-deux ans yàlla na la yàlla may nga dund lu ko ëpp te dund ko ci bëgg-bëggam moom bëgg bëgg mooy alquran te ci loolu rek nga nekk foofu fekk moo ngi taqoog téere yàlla bi ni ko sëriñ bi taqoo woon ci di ko jàng di ci sàkku ngërmaane yàlla ak di ko jubloo yàlla ak lépp lu góor yàlla di jubloo yàlla rek xam naa ne mu ngi ciy somm te loolu du ay wax yu mooy koy sànni nii ndax suñu waxtaan bëri waaye man yàlla daf maa bindee damay naw kuy jaam yàlla bu ma la ko waxul sax euh, da ngay am place ci sama xol bu ma xamee ni kii dafay jaamu yàlla rek man daanaka voilà moom sëriñ la waaye dafay jaamu yàlla yàlla fay kontaan nañ moom laa bëgg moom mooy tëj jotaay bi waaye euh, damay wax rek pour ndokkeel mbokki taalibe ak kilifa yi di nuyu suñ papa Cheikh Mouhamad Basir Thiam xam ngeen ni mel ci ñun daf ñuy taxaw. guddi ak bëccëg zahir ak baatin xaal buñ mën na nekk moo ngi ànd ak ñun jamaalan aw jalaalan waaw lum am ci lum am ci ñun rek na lu ko ëpp maa leen koy seedeel lum am ci ñun mérito na lu ko ëpp ci mbaaxam ci ñun dégg moo tax xadara bii dañ ko fonk lool dañ ko fonk lool waxtaan wii mu fi def dafa méngoog jamono jii borom maarifa la borom baatin la mufassir la amul ci loxo nag macha allah lu ko të téere lum tumuranke tumuranke bu ko téyee bu ko liiree léegi léegi léegi léegi day mel ni téere bi tey la koy door a jàng léegi mu jàngal la ko jox la ci dars macha allah yàlla may ko ci luxal arabiya loo xam ne lu tumuranke la waaye li kullu maqaamin maqaal xaatibu naasa ala qadri oqolihim boo nekkee ci jamono boo xam ne léeg-léeg dafay wàcc nga wàcc niveau bi ba tolloog nit ñi léeg-léeg nga yéegal niveau bi ba tolloog mustawaawu ña nga dendal jaww ji loolu la laaj moo tax gis nga indi na waxtaan boo xam ne moo ngi jàngale tooguwaayu jigéen di jàngale tooguwaayu taalibe ak sëriñ lépp ba ñëpp ñoo ngi kontaan jaww ji loolu la laaj te bu jaww ji laajoon leneen ci ngeen xam ne am na leneen ak leneen ak leneen kon yal nañu ko yàlla fayal lii mu fi jàngale jàngale ko ci arab ngir gunge gëstukat yi ñi nga xam ne dañuy def ay baaxsu sëriñ bi léegi rek moom dafa bëgg xam-xam Cheikh Baye ibnu Cheikh Mouhamadul Aqibu moom mu ngi koy tooñ na ko nusxa bi laa soxla ah, loolu taraangay borom xam-xam la bax su dafa métti toog nii rek di xaatir benn mawdon rek pour am ay addila yi nga ci war a liggéey loolu ku xamut yoonu xam-xam da nga yaakaar lu yomb la waaw loolu yombut waaw def na ko bi mu ñëwee mu ne ma sonn nga waaye xaaral ma jàng ko mu ne ko ma ko pambas dar si bit moom dafa oyof sax bii xóotul te ñi ko déglu xam nañ ne xóotalu ko xóotalu ko taalibe sëriñ dëgg-dëgg da koo wax rek ci niveau bi mu jàpp ne tolloo naag yaay yeeg mag yeeg bàjjen yeeg yëpp am na foo xam ne bu fa duggoon dañ naan kii ban làkk lay wax te fekk ne mënoon na koo tëggaat ci yeneen tolluwaay yu gën a xóot waaye alhamdulilah yal na ko yàlla fay mbaax ñoo ngi koy nuyu bu baax di ñaan yàlla liggéeyam yàlla na génn yal na yàlla génn sa liggéey jaami yàlla yaa ngi jëriñu bu baax ci yow ñii dañ koy wax ñi ñàkk koo wax waaye amul ku dul jëriñu ci sa jàngale waaw waaw ak xaritam suñ papa papa alaaji Cissé Cheikh Mass sànq kontaan bu baax ndax da leen leen présenté wàccuwaay boo xam ne dafa sedd ci sama xol ñi nga fi ñëpp wàccuwaay bi nga leen wàcce kontaan naa ci ak ñi nga fàtte sax ñoo ngi leen di jéggulu fii ku fi teew rek suñ soppe nga waaw yal na yàlla yàggal leen suñ kanam ah di nuyu muqaddam yëpp al imam Mouhamad Lamine Ndaw sànq jël na fi kàddu di kilifa di borom xam-xam comme ni ko Cheikh Mass waxee Cheikh Baye Mbaye muy ex muqaddam Cheikh Ousmane Diak ak suma xarit Cheikh Aliou Diak ñoo ngi toog al amir docteur Abdoulaye Lam moo jiite jamaa Ibadu Rahman bu Sénégal yépp di borom xam-xam di sunni di ko oyof di suñ mbokk ci Saalum di suñ mbokk ci dëkkandoo di ku xam kër gi jàngee fa te yàqalu ko daara dama koy wax ne ko tey eh, su eh, maanaam waxaabit yi buñ amee wuteeg suufiyanke yow yaa leen di régler yaa régler problème bi ndax oyofam ah wallaay imaam mu ngi koy wax léegi nee na ko yow ci ñun nga bokk ñu ne ci yow lañ bokk vraiment dëgg-dëgg macha allah bi muy def dédicace ci benn livre bu mu bind moo nga tuddee ahkaamul agniya fil islaam bi ma egsee xam nga moom dafa mën a kaf sëriñu suufiyanka bi ñëw na nag ñëpp dégg nga macha allah nit ku yàlla teddal la waaw ñoo ngi lay ñaanal li nga jiite ci jamaa Ibaadu Rahman école yi nga bëgg taxaw say masroat yi nga am yëpp teen yeeg école yeeg kulliyaat yeeg dégg nga taalif yéeg lépp loo ci bëgg a réaliser ci luy xëcc nit ñi jëmale leen ci njàngale yonante bi sallallahu alayhi wasallam yal na la ko yàlla yombal ak kuréel gi nga àndal yépp suñ dëkkandoo bu baax la ku tedd la bu ma ko doon topp ni mu nekkee ñun dëgg-dëgg macha allah euh, allahuma laa adru ñoo ngi nuyu euh, Moussa la maire Moussa Fall député maire teew na fi ñoo ngi lay ndokkeel bu baax moom moo jiite maire wu Tivaouane Diacksao donc Moussa la maire commune bi gisaguñ ko mais monsieur Aline Bey xaw ma yónnee na fi wala dafa am ngànt mais moom suñu tonton la ndax suma ma nijaay Abdourahmane mii moo su ma ñoo bokk ndey ak wëllëreem la dégg nga di suñ tonton bu baax waaye dafa bëgg jaamu yàlla du foo ko fekk moo ngi macha allah bureau moo ngi ci kaamilam di waqaaf moo ngi kurusam alxu maire beeg député gi yàqalu ko alxuraanam ji moom maire bu am mëdët la moom xam nga yàlla moom dafa am ful la loo jokkoo moom rek mu mu def ci yow dara moom maire la bu am mëdët waaw du maire kese kese yooyu nga xam ne dañuy tappalee ka def ay si facturation dégg nga ah, di jël marché yi di jël laxasoog yooyu moom maire la boo xam ne abdan lillahi la day toog ba yàgg rek ñëw na jaa ca kër ga ñëw wasifa si du ma yëgal sax parce que suñ mbokk la ci yoon Tijaan Tiwaawan la aju ñëw toog bu ma ñëwee fekk mu toog ñu bokk wasifa macha allah bu ñu paree ñu ñaan mu mu dellu kon yal na yàlla dëgëral sa mandat ci maire bii population bii la wóolu ci Tiwaawan jàmm gën yàlla jagsaaw yal na yal na la yàlla may ndam ci seen ñoom it yàlla na seen xol sedd ci yow kontaan nañ ci sa ci ci ni ñu jàppee ak ni nga jàppee mbooloo ñoo ngi doon séentu monsieur le ministre Moustapha Sarré porte-parole du gouvernement Sénégal en plus ministre de la formation professionnelle ñëw na barki démb ziyaare si ma fa digoon nañu sax na ma dinaa waxtaan ak président de la république ak premier ministre incha allah pour ñëw représenter leen ci jotaay bi peut-être dafa am empêchement mais ku amoon éene teew la euh, maa ngi jàllale message boobu barki dem mu ñëw na ziar si ma parce que su ma wëllëre la te ku bëgg Sénégal la mais ku ku ku ku loyal la it ci àndam ak président de la république ak àndam ak premier ministre Ousmane Sonko parce que nit ku mu fonk ku mu fonk boo wéetee danga wax ki nga fonk di wax ki nga fonk ci kanamu nit yomb na mais fu wéetee moo ngi wane projet bi bien avant ñuy accéder au pouvoir projet bi lan la euh, qualité yi nekk ci dégg nga euh, premier ministre Ousmane Sonko boobu mooy dégg nga ba léegi mooy président Pastef nga xam ne kii ku fidèle la ku loyal la dégg nga envers leader am bi nga xam ne moo ko jiite. ba président ñëw tey nga xam ne léegi ñaar lañ munoo wax ci premier ministre bi te doo wax ci président bi nga xam ne moom moo ko jiital tey mu nekkaat président de la république Sénégal. vraiment euh, bëggoon naa mu ñëw ba ma témoin li nga xam ne xam naa ko ci dëggu gi nga xam ne ànd na ko ak ñooñu mais malheureusement mun naa moom ay empêchement mais kontaan nañ parce que barki démb rendre nañu visite boo xam ne yaatu na waxtaan nañ ci yu bëree bëri euh, yoo xam ne concerne na réew mi concerne na xadara bi fi ñu toog voilà am na ci détail yoo xam ne sax jarul dëggu mais euh, digoon nañu ne dana teew te wax nañu ne président de la république laay teewal te dinaa waxtaan ak moom ci jotaay bi alhamdulilah réew mii ñu koy jiital ñun ak ñoom ñoo bokk génération te ñoo ànd xeex bi ñoo bokk génération te ñoo ànd xeex bi moom la Pape Bass doon junju léegi xam nga man ku mel ni Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqibu bu la yaree euh, léeg-léeg foofu dana am ay jeexital waliw bu mag moo mel noonu yi ci yow man ko discret la boo mu dugg doo ma xam waaw boo jaxasoowut ak man dëgg-dëgg danga may dooma xam dara dégg nga ku discret la voilà voilà voilà waaye Sénégal gii nag xam nañ fi dara waaw xam nañ fi dara xam nañ fi dara sëriñ bi it moom xamoon na loolu waaw waaw bu bu ñëwoon fii taalibe yu bëri yi may àndal ñu toog bu ñuy waxtaan léeg-léeg danañ dugg ci waxtaan yi parce que moom ñim yar dafay wax ak ñoom li muy noppi yëpp ci ñim miinut la wala ñim yarut waaye ñun ñi am sens mu yar ñu dafay wax ak ak ak ñun mayoon nañu loolu ci boppam radiyallahu anhu moo tax yooyu duñ ci sori waaye ñoo ngi ñaanal nguur gu bees gi yoon bii ñu jël yal na leen yàlla may ndam politique wu ma mais sañ nañ leen ñaanal rawatina ñun dañoo ànd ak ñoom loolu dañ koy assumer dañoo ànd ak ñoom daj ci lu ne comme ni ci keneen daje lu ne Sénégal yëpp ci daj lu ne emprisonné nañ ci samay taalibe fa mu gën a méttee ña yor dossier yi ñooñu laay dem seeti te nëbbuma leen na sama taalibe yi waa Pastef la te boobu moment boobu am na ñoo xam ne dañuy daw waxuma sax ay procureur mais ay policier sax la ñuy daw ak ay gendarme ñun bureau procureur dañuy fëgg ñu naan ñu dafa jàpp ak xaar leen ak nàngam buñ toogee juge bi xamal ko ne ko ñii nga jàpp waa Pastef lañ te ñu nit waa Pastef lañ nëbbuñ leen dafa am foo xam ne boo fa tolloo ci yàlla dootoo ragal lu dul yàlla doo tooñ nag mais dangay ngay am xel nag logique bi nit yàlla demee da ngay yaakaar sax dafa xamul dara fekk déedéet dafa am fu mu toll foo xam ne un plus un égale deux xam nañ ko de maanaam xel li muy waaye am na naanuwaay yoo xam ne boo ci tolloo léeg-léeg am na neneen nooy doxe nu bokkul ak ni nit ña kon ñoo ngi ñaanal nguur gi bu baax yàlla dimbali leen ba Sénégal tegu ci yoonu njub Sénégal tegu ci nataange yàlla mën na ko yàlla na ko def ñeneen nit ñeneen lañ gëm de am na ñeneen ñu gëm ñeneen citoyen bu ne libre nga ci say pensée libre nga ci sa gis-gis loolu citoyen bu ne libre nga ci waaye ñun tamit libre nañ ci suñuy pensée libre nañ ci suñuy gis-gis te ñaari ku xaw a dëgër bopp laa nag dégg nga moom moom man samay principe moom dara mënuma cee dindi loo may convaincre na nekk xam-xam ak dëgg boo doon jël asamaan ak suuf di ma ko nappee wala di ma ko ti dama lay reere damay xam ne dangaa yëgul li xew kon ñoo ngi sant yàlla ci loolu loolu maa ngi koy wax responsable Pastef yi fi teew ak autorité yi fi teew yëpp li jëm nag ci mbokki taalibe yi sëriñ bi waxtaanal na leen jotaay bii 20 jours ci ngeen ko organiser maa ngi remercier ñëpp ci turu Cheikh Mass marhaban yaa imam Tafsir Thiam ci turu al imam Mansour Diop ci turu président Amadou Anne ci turu Cheikh Mor Thiam Jamaalu Diin moom moo nekk Liberté 6 moo nekkal xadara bi foofu ci turu Cheikh Mor Gueye Taqiyullah moom moo amee li ko daggee Castor Yaraax jàpp ba côté Almadi lépp lu aju foofu moom lañ ko dénk ci turu Cheikh Baye Congaan mi nga xam ne mbuur la jógee ci turu ñiñ taqdimal yépp bàyyi Cheikh Oustaz Ababacar Gueye Kaolack dégg nga Cheikh Baye Ndiaye ak taalibe yi ak soppe yi nekk à l'étranger soppe yaa ngi fu ne ñoo ngi France ñoo ngi Italie ñoo ngi Angleterre ñoo ngi Espagne ñoo ngi États-Unis d'Amérique foo dem rek ci dëkk yooyu dañ fa fekk suñuy àndandoor ci yàlla ak suñuy sot fii ci Sénégal it administration bii suñuy nit kese ñoo ci nekk mos naa ko wax sëriñ bi bi ma mujjee seet si fii su néeg am na ku ko seede benn doomam moo ngi toog ñu am yu bëri yu ñu wax ma ne ko sëriñ bi ci sa barke. fii ci sa barke njaboot gi ñoo ngi fu ne ci biir réew mi parce que vingt vingt deux ans du benn bës daayira bi vingt deux ans la am daayira boo xam ne vingt deux ans ñu ci nekkoon ay étudiants war nga xam ne ñooñu ay cadre lañ léegi vingt deux ans nag mu mu bégal ma sax am na ci yoo xam ne du waxi jotaay bi waaye yéena ko moom dafa maa mu ne ma yàlla mooy maye yàlla may na la te may googu kenn mënu ko yàq wallahi moo ma ko wax mu ne ma mu teg ci mu a ma te sa mbooloo kenn mënu ko yàq après teg na ci yeneen wax ñëw gii ma la seet si am na ñu bëggoon a ñëw sax waaye dama leen tere yooyu ay yeneen i wax la parce que moom moo ma yàq xam na ma waaw xam na ma waaye loolu rek ma wax ko ci waaw waaw mu ne ma yàlla mooy maye te yàlla may na la kenn mënta yàq may googu oote bii moom moo ma ko jox waaw wëliw bu yam noonu ci basiiraam ak tasoon ba may nekk ndaw mu ne ma yow lii mooy sa mbir war naa toog ba léegi benn waaye di ma ñàkkal fayda wala di yaakaar na man benn ñoxor xopp laa noonu mu may teree nelaw xanaa boobu boobu damaa xamul ah xanaa dafa am loo xam ne moom xam na ko man xam naa ko ci wàllu yàlla mu ne ma yow oote ci yàlla mooy sa mbir ci yàlla dañ la wuyu loolu moo ma ko wax daan na ma wax mu ne ma yow bul jàpp sa bopp ci xale yi de kilifa nga daan na ma ko wax daan na ma wax yow bul fo bokkoo ci ñiy fo moo ma ko wax maanaam tarbiyo naa ko cinq a sept mois yoo xamante ne mu may door a yabal fii li ma ci jëlee ci yoo xam ne léeg-léeg daf may concerné du benn wax du ñaari wax kon ku yóbbu nangul ma rek waaw boo ko deful rek da nga ci am gàcc wallahi azim ku yóbbu sa xol nga nangu ni ma yàlla def rek boo ko nanguwut da dund fii ci àdduna te da yàlla dina la mere te te bàyyi dina la mere sëriñ bi dina la mere Cheikh Ousmane dina la mere ndax man xam naa ne naa ak ñoom wallahi man xam naa ne jubóo naa ak ñoom loolu moo tax suñu jamono jii nag àndoo tappale dafa am àndoo pexe àndoo jayante su ma fonkee diw danaa am bës dana ma yëkkati diw bu ma tegee loxo diw bu ma meree ma yàqu diw bu kontaanee ci man diw su ma ko addiyaalee dana ma xamalee kilifa yi après lan la lan la xanaa déggoo Baye Niass mu ne la wutal ngërmaane yàlla ah mu ne jigéen ju bàyyi àq yàlla bu la jëkkër gërëmee zéro taalibe bu bàyyi àq yàlla bu la sëriñ gërëmee zéro doom ju bàyyi àq yàlla bu la waajur gërëmee zéro waaw yow nga jël yàlla ñàkkal ko la ba pare léegi nañ ñii moom nañ la gërëm nga am dara ñooñu nañ la gërëm nga xool nañ la gërëm yooyu du dara ay caaxaan la man lu ma ne lu sincère la lu li ma loo gis may def lu sincère la lu ma lu ma lu ma du def rek dama ci maanu du ma gëm noonu la ma yàlla bindee loo gis may def rek wala ma koy wax rek bu la neexee teg ci sa loxo xataa bu ma juumee sax loolu laa gëm bi may wax loolu gannaaw nga kay xanaa nga may xamal ne sëñ bi fii waaye loolu laa gëm bi may wax yàlla nag noonu mooy sama tabia noonu la ma bindee yàlla nag lu mu yassuru li maa xuliqa lahu yonent bi nee na yàlla ku ne yàlla da lay bindee ni mu la yombal hmm. nit ñi nag dama déglu benn waaye ci internet bi waa ji sax ci yeneen wax la doon mu ne Sénégal boo awee ci yoonu toroxtaange ñëpp lay bëgg parce que dañoo xam ne doo tekki dara buy góor buy jigéen mu ne waaye boo awee nag ci yoonu nekk ndaw am teggin di jàng fonk sa diine fonk say waajur fonk say sëriñ fonk nit ñi baax ñëpp lay noonu parce que dañ naan kii moom dana doon yi dara nit ñi daal maanaam daal ku am fulla ku bëgg lu baax lañu bañ voilà yenn yi man damay xool nit ñi ba yàgg sax dañuy léeg-léeg ñenn ñi seen comportement dañuy mel ni ci man ay xale ñoom xale laa ci ñoom mais man dama leen di jàpp comme ay xale yuy foodaal yenn comportement yi ci daawa bi dama koy xool ba yàgg ay xulaam laa leen di jàppee xulaam mooy ay xale ci arab ay enfance affaire enfantillage la ñuy def voilà faydu li ko tax a jug mooy delloo iman wala hikmatu fi zuhuri haasi il fayda loolu la bàyyi wax lii hikma ci feeñ ak faydu bi fi haazal zaman al fasid ci jamono bu yàqu bi deful iman fi kasrati qulubi nas mu ne néew ak ngëm yàlla ci xolu mbindeefi fa haadihi l ummatu ummatu l marhum fa ufidat ilayhim al maarifa wal xaqaayiq li kay yarjoo li asli fitrati l imani fafham loolu la bàyyi wax ci kaasif mu ne faydu bii néew ak yàlla dafa tasaaroo ci xeetu yonante bi te xeet bi yàlla da leen a yërëm mu ne yàlla feeñal fayda bi ngir delloowaat leen ci sell ak cosaan da nga xam ne euh, moom lañ amee woon ca kullu mawludun yulud alal fitrati hadis boobu faydu moo mën a delloowaat nit ci imaan boobu te yonent salaa sallam daf ne iman dégg nga juróom-ñaar fukki xaaj la mu ne ba ca gën a kawe mooy laa ilaha illallah ba ca gën a suufe mooy imatatul azza anit tariq nga dindi lor ci yoon kon buñ toppoon di wax xaaju imaan yi dégg nga te imaan googu buñ bëggee wërsëg sax dégg nga mu ngi ci imaan walaw ahlul quran amanu la fataxna alayhim barakaat min alsamawati wal ard gis nga foofu pour ñu jot barke asamaan ak suuf sax yàlla def na waa dëkk bi yéen waa màkk bu ngeen gëmee boo toppee iman wa man faala zalika faqad faaza fawzan aziman mënta ñàkk ngeen bari lu ngeen teew ci man ci li ëpp ci seeni waxtu ndax ngeen jël ci tegginu soobu jëm ci yàlla comme ni ngeen jël see woon jas bi al adab ma allah mooy nga kennal yàlla ca kennam ka zahiran wa baatinan bi nga amee fanaaw ci yàlla iman la la jëriñ bàyyi tontu na ko seexaani ca ca ca jaare saari ñi ma tudd ñëpp na ma egg nañ am nañ wusul yaa ngi may bégal dollee ko iman ci xeetu yonent bi nga kennal yàlla ca kennam ka zikkar bi yonent bi jàngale na moo gën a foor ci zikkar si sax firi laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir xoolal foofu rek di nga bàkkee yàlla kon tegginu jaam bi ak yàlla mooy nga kennal ko tegginu jaam bi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga kennal ko ci anbiyaaw yi bàyyi mu ne alquran kay ngëneelu yonent bi ci ci yeneen anbiyaaw yi yàlla danaan Moussa sa xeet na yonent bi li kaafatali naas bàyyi def na ci waxtaan Oussa Bara mu ne dafa am ñu nekkoon Mauritanie naan yonent bi gënul ñeneen ñi bàyyi mu a dof yi bu ma leen seetaanee dana yàq àdduna bi xaaral ma def ci benn mbind waaye loolu taxuñoo jóg waaye jàngkat yaa ngi nii kilifa yaa ngi nii xam nañ bu baax li may bëgg a junj dégg nga afdaliyatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak fawqiyatoom ci ci anbiya yi ak mursaluna yi bàyyi indi na ca lay yu bëree bëree bëri ci alquran ak ci radiyallahu anhu nga kennal yonent bi waaye nga topp sunnaam waaye nga kennal ko ci xaqiqam bi boo defee sulub ba xam xaqiqam bi nga kennal ko foofu waaye kennal ko it ci zaahiram cheikh kazaaka cheikh tamit kazaaka cheikh Ibrahim comme ni ngeen jël see woon jas loolu nag kilifa yi dañ ñu ciy dimbale ku mel ni sëriñ bi Cheikh baay moom waxtaankat la borom xam-xam la waaw du sëriñ yooyu toog noonu noonu rek di def faatee ñetti salaat faatee dégg borom xam-xam la bu wàcc ci géew bi di di yare di jàngale di waxtaan ci yàlla ak suñ papa Cheikh Basir ak suñ papa alaaji ak imam Lamine Cheikh Ousmane ak Cheikh Ousmane Konte ak Tidiane ñii ñëpp ay du duwaatkat lañ ay boroom xam-xam lañ yoo xam ne fuñ toog danañ fa jàngale njàngale moo xam ne xel dana ko mën a nangu loolu te doo tudd kenn nag waaye da nga loo xam ne ku bëgg a gàggantiku dana dem xool lee xool leneen li nuróowut ak waxi bàyyi xool li nuróo dëgg après na nga bàyyi jaam yeeg seen borom loolu penc mii ñuy dund di woote ci yàlla ci tijaan ya jamono ji da koo laaj wax ji bëri na lu rot ci sa xel mi nga defar ko ne sa fa bopp la indil ñu problème yoo xamante ne kenn xamul problème bu dem ba sedd ba nga yaakaar ne bii moom dara rees beneen ñëwaat te lépp ci wax ay lay lay boo il est temps kilifa yi Serigne Mbaye am nga ci wàllu Cheikh Baye Mbaye Cheikh Babacar ngeen gën a yaatal yéen a ngi ci sax waaye suñu responsabilité la ñun ñëpp ci ñu défendre jàngale Cheikh Ibrahima ak oote Cheikh ma waaye def ko ngir yàlla waaye def ko ngir suñu jaayante Cheikh Ibrahima ndax Cheikh Ibrahima dañoo jaayante moom tey ëllëg te bañ cee xaar kenn nag suñ dëgg ak baay kilifa gu ñu ci ñaanal nag ñu bénéfice wu kilifa ñaanu nit ku baax kilifa gu ñu ci wax jaajëf. ñu bénéfice u jaajëfu nit ku baax yooyu soxla nañ koy nag waaye na fekk suñ xol yi Cheikh Ibrahima rek lañuy lañuy la ñuy la ñuy topp damaa mos a gént Cheikh Aqibu bi ko bi ma ko géntee ci gént gi ma wàccu ba moomi dund bi ma wàccoo su ma bi ñu tuddee maam Asu Jànka ma ma gis boo ma nekk xale yaayam mu ko boot mu jox ma mbootu mi ma fomp ci ba pare rek ma gis sëriñ bi taxaw mu ne ma kaay mu ngi ci benn nit ma ñëw nuyu ko fekk bàyyi moo ngi toog nii sëriñ bi moo ngi toog ci wetu bàyyi te moo ngi màggat ba jaaw ni bàyyi moo ngi toog ferenkulaay ci kaw lal bi mu ne ma nuyul bàyyi ma nuyu bàyyi toogaat ci ginnaaw bi ma toogee maa ngi xool bàyyi moom moo ngi wax ak bàyyi nag dégguma li ñuy wax ma wax ci suma xel mi maam bàyyi bu ma laajee yow loo may xoolee nii lan laa koy tontu ci gént gi ma wax loolu ba pare sëriñ bi wax ak bàyyi ba pare mu ne ma tàllal bàyyi ñaan ma tàllal bàyyi ñaan ñu génn ba ma yeewoon nag man am naa sama sama dégg-dégg bopp wallaahu axlamu hmm. allah yaxlamu man xalaqa yàlla xam lim bind ci ay gént yàlla xam lim bind ci ay mide ma damaa gént rek ne sëriñ bi daf maa yóbbu ba ci bàyyi hmm. maanaam sama sëyru la ma yóbbu ba ci bàyyi dégg nga man noonu laa ko déggee xaw ma nag ndax loolu la am suñ benn papa maa ngi moom ñoo jàppandoo ci sëriñ bi mook ñoo maasee mook sama papa ñoo bokk bàyyi euh, damaa gént bàyyi moo ngi ñu ne kuusi moo ngi maa ngi toog nii ci wetu baay moom moo ngi toog nee am ay naar yuy gor garab di ko goral baay baay jël benn doom papaaya jox euh, jox ko lekk jox ko bi mu joxee sëñ daa sëñ daa ñemewut lekk mu jël doom bi jox ma ko bi mu ma ko joxee ma ma wax baay na ko kii xam nga lu tax mu jox ma ko man maay buntam ci yow moo tax baay daal di muñ ree bi ma yeewoo ma woo sëñ daa yónnee ko seen na ko demal jënd papaay démb sa papaay donc Mawlana dafa jege taalibeem yëpp dafa jege taalibeem yëpp te ku nekk fii rek yaa ngi am ay mashhad yoo xam ne yu yu dafa am bés coow li bëri trop ma gént ko bàyyi wan ma benn nag bu xonk mu ne ma saraxel nag bi jëndal nag bi nga saraxe ko ma yónni benn taale bu nekk France na ko wutal ma nag bu xonk bàyyi laa gis béng mu ne ma demal jënd nag bi 2014 kooku bàyyi nañu kooku bàyyi nañu mu ne ma nag bii jënd ko nga saraxal kooku bàyyi nañu ah, alors bu defee benn waay boo xam ne dañ koo désinformé mooy ku amatul information xam nga am na ci gars yi yàlla ñoo xam ne jotatuñ benn xibaar seen seen basiira bënn ñooñu ñooñu buñ lay xupp ak ñàkkal fayda da ngay reer waliw bu ñuy informé ak waliw bu ñu désinformé bokkuñ bokkuñ naan waay <laughs> bokkuñ naan waay loolu nag yéen taalibe yi yéen ko moom ziyaare bi du du du du du du defante de 2006 lañ ko sos at bu jot bu ngeen ma ñaanee génn ko ma bañ boobu sëriñ bi moom ci kaw suuf suñ ma ziyaaree ba pare rek ma ñaar dërëm duma ko lekk ci liñ may indil lu may laaya ngi nii laay suma taalibe la mm-hmm. tuddee ma doom tuddee taawam si bi ñu ñu maasee ñu yarandoo ah moom laay jox suma addiyee ba mu dem ci sëriñ bi ba sëriñ bi jot ko ba pare mu door nag ñemee naan attaaya ci li ma gars yi eh, laaya biir tuuti comme ay ndonga daar lañ te Pape Bass wax na ko sànq nee na taalibe loo baax baax baax dégg nga biñ ciy waxtaan ma ne ah wax naa ko laay mën na ko jëmmi sëriñ bi de ci saa yi nekku fi waaye addiyee jooju da ma ko yóbbul ci suma sang ya ñu nga seet taali bi di wax munu ma lii boobu man maanaam waxuma man munu ma de dañ doon waxtaan day waxtaan rek ñun bu ñuy doxan mën na kaa ah, sëñ bi gars yi moom liñ sas taalibe yi jamono ji daa métti de munu ma tée bul wax loolu loolu day wàññi barke ah, dégg nga bi may nekk moom dafa dafa dafa fonk barke waaw moo tax benn taal mos naa damay dégg nga affaire barke maanaam barke dañ koy jënd barke dañ koy jënd tappale du ko maye du lu sëriñ di may taalibe du lu sëriñ di may doom du lu ja jëkkër di may jabar du du déngat da koy wut ak xol bu sell ak dëgg yombatul nag ndax daara ju daara ju màggat daara ju màggat taalibe yu màggat yi dañuy empêcher taalibe yu bees yi dañuy yàq seen liggéey foo ma reetaan loolu lay tuuri nag parce que tooyaa bi daa yàgg daara ju yàgg taalibe yi nga xam ne mënatuñoo dem nga xam ne dem duñ bàyyi ku dem duñ fa nekkee lu may rësal pas-pasu taalibe yu bees yi ak di leen dugal ci yu kenn xamul loolu taalibe yu bees yi war nañ koo moytu ci bépp kër sëriñ nag barke dañ koy wut te boo àndee sëriñ na sa xol bi sell nga wàccee sa bopp yàlla te nag na nga wut yàlla nag moo la boole sëriñ na fekk nag yàlla ngay ut moo sëriñ bi maa ngi bëgg a guddal maa ngi tëjee benn aaya rek jox sëriñ bi bàyyi ba fa waxoon baraam Diop radiyallahu anhu suñ sëriñ bu wax boobu ba muy def baxsu bàyyi yebal ko ci sëriñ Aliou Oustaz Baraam moo ko nettali ci mbiri ziar mun a bàyyi def na ko bul fàtte laaya ji ci sorti nisaay dégg nga wala wa annahum iz zalamu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru llaha wastaxfara lahum rasul la wajadu llaha tawaaban rahim bàyyi mu ne xoolal laaya ji yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sa àndandoor yi buñ demee ba tooñ seen bopp nañ la dikkal jéggalu yàlla yow nga jéggalul leen yàlla yow ndawal yàlla danañ fekk yàlla muy jéggalaakoon di yërëmaakoon tooñ sa bopp nag maanaam yu bëri la tooñ sa bopp ci bàkkaar sa diggal sa borom tooñ sa bopp ci àq yoo amee nit ñi tooñ sa bopp ci xaflatu sàggan goo am sa diggal sa yàlla ci sa xol ak sa xel waaye tooñ sa bopp sax ci jamono nim tëddoo nga gat jaaxle jotaay jotaay mu kaafara la jotaay yuy dindi stress la jotaay yuy wàllante xaal la rijaalullaa yi fi nekk wàll leen xaal ñaanal leen yàlla xoolante bi yépp ku ci ñibbi dañoo yóbbaale yoo xam ne mënoo ko woon góobee lu may ci jotaay yi bàyyi nag mu ne jëmmi yonent bi ci zaahir dem na mu ne waaye mbóot ma abu Aboubacar ñëw toog mbóot ma moom moom fa Omar toog mbóot maa ngi fa Ousmane toog mbóot maa ngi fa Alioune toog moom fa bàyyi mu ne ba ci sëriñ si mag si Seex Abdu Xaadir Jilaani Seexu Tijaani mu ne ba ci jamono ji may waxal yéen yaakaar naa ñi may waxal am nañ dégg loolu la ci bàyyi teg te bàyyi moo ne asey aseyqi fi qawmihi kal nabi fi ummatihi sëriñ ci xeetam dafa mel ni ab yonant ci aw aw aw ummaam sëriñ mooy ku óotu yàlla ci jaam bi óotu yonant ci jaam bi óotu wël ci Cheikh jaam bi óotu Cheikh ci jaam bi yow nga effacé wu nag yow kay waroo baare ñooñu sa yar ci ñooñu mooy nga fexe kooku nekk taalibi bu dëggu ci ñooñu dund seen jàngale loolu ñun mooy suñu liggéey sëriñ sa bàyyi loolu la ñu jàngaloon dama liggéeyal yàlla fi sabilillah bul propagande kenn li ma a sant soo ko defee yàlla dina la teral te adduna bi yëpp dañ fi dégg baat boobu la moo waxoon te dégg nga te loolu dafa am seet te wax na ma it nag yu bëree bëri te lépp yiw la lépp lu baax la lépp luy encouragé ndaw loo am yaakaar ci mu liggéeyal yàlla ndaw loo yàpp lépp lu ma mës a takk ci moom ci waxam ci ñaan lépp dégg nga te xaal bu ñu mën a nekk rek moo ngi ànd ak man at yu mujj yi nga xam ne fenkat yeeg soskat yeeg jaxasekat yi léeg dañuy dem te dañ may jaxaseeg moom wala dañuy fenal sama taalibee boobu da ngay wax ba pare nga yaakaar yow li nga wax moom yow da lay topp sa waxi caaxaan yooyu boo paree ba pare mu bàyyi la ak say wax jàppale yow ni mu la jàppee moom xolam bi xam na taalibeem bi li muy def ak moom xam na ko moom xam na ko <laughs> moo tax waliyu bu mag léeg-léeg day sonn sax day sonn ñun xam nañ moo tax ba pencam yàlla mooy sama sëriñ ba pencam yàlla sëriñ boobu mooy sama sëriñ waaw te xadara bi eh, ñii buñ ko waajoon ñetti weer est fii lañ ko doon baasal fii bayaal bii junniy 16 ak yu teg lañ doon luye mais maa leen wax luye leen 516 ay at defuñ jotaay te lii ci dans vingt jours ci ngeen ko organiser def leen rek lu yam taalibe yi nga xamante ne dañuy nelaw mbàjj mi yeewu yeewaguñ leen bu ngeen leen yeewee ba pare ngeen ngeen ngeen door ko yaatal waaw kon nag yéen jëwriñu daayira bi xadara bi muqaddam yi responsable yi na ngeen yokkaat effort yi yokkaat njàng mi yokkaat tarbiya bi yokkaat xitma yi lépp ñeel yàlla lépp ñeel faydu Cheikh Ibrahim lépp ñeel lislaam loolu mooy sama oote loolu la ma sama sëriñ sant ci loolu rek ci laa ne wax ci sëriñ bi rek moom moo ci nekk kon nag dañuy jox Cheikh Baye ibnu Cheikh Mouhamadou Aqib bu mu tëj jotaay bi di ko jox kàddu yi incha allah sëriñ bi sunu ko lëreeg yow ñu ngi koy féddali dina la wax ne fii sa njabootu way jur bi rek ñoo fi ne wallahi ñu ko sopp ñu ko bëgg nga may leen jàmm lool bëgguñu yow it taxawuñu wax dëgg yàlla saa su nekk rek ñu ngi lay wax ne taalibe yëpp ñu ngi kontaan ci yow di faslante ak yow kóllëre incha allah ñu ngi jox Cheikh Baye mu tëj jotaay bi incha allah jërë ngeen jëf alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin ibnu abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di ndokkeel suñ bopp waaye it di ndokkeel cheikh Mouhamed Sakhir Kabir Ndiaye di ndokkeel jamiyatul birri wal islaax bu Dakar ci li ma xam man yaakaar naa booy mooy biñ njëkk a fii ci Dakar bu ma juumut eh, ñu sant yàlla bu baax ci loolu eh, kàddu yi nag du mun a gudd dañ koy gàttalee ngir guddalee ko xam-xam bu rafet bu sell bu fi oustaz Bachir wax jàngal nañu oustaz Ndaw imam Ndaw sànq wax na fi ne néew na ku nekk mbiri na ku mu jàngalut loolu lu wér la ndax saa bu minuit jotee bu ubbee alfayda danga ko déglu muy jàngale téere bàyyi ñun bëri na ndaw lu nekk mbiri na te jaaroo ci moom mu jàngal la majlis kon ku am xam-xam la ku ko itteewoo la ku ci yàgg góor la di ah, bëri na ñoo xamante ni dañoo nëbbatu moom ci ñu nëbb ñu la bokk fees dell la xam-xam te boo demee merina boo ko fekkee buntu këram mu toog doo foog na seex kii xam na dara ab taalibe la def boppam suufeel boppam wàccee boppam kon nit ku baax la jotaay bi nag dañ ci sant yàlla bu baax di ndokkeel ñépp képp ku fi teew ñu ngi lay ndokkeel di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ndax lii suñ jotaay la cheikh saxiir mi sëriñ aqibu moo ko oo moo ko tarbiya yar ko ci biir këram fat ko ci këram pendant cinq ans ak ay weer yam ca teg moom yi wax bindal ko lijaasa na ko demal dakaar nga oote ngir yàlla te yàlla tax nga liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim te ñun seede nañ ne depuis sëriñ bi ebal ko fi ba léegi wax dëgg yàlla suñ koo dégg ci lu ñaaw suñ koo dégg ci luñ koy xeebee kon kii ko ñuy tiitaroo la ndax lu ñu waroon la ñëw ñun ndax tool bi suñ tool la ñun ñoo waroon a ñëw fii toog fi bay ko moom mu ñëw fi uutuñu uutuñu fi bàyyi ndeyam bàyyi baayam fële ci Kaolack ñëw fii di tumuranke ba mu fi ñëw bees metti woon na lool xëyut rek mu neex de dafa ñëw di raam ba ci mu yàgg mu taxaw di jonk di jànkuwanteeg ay jafe-jafe ba mun a xëy tey am lii nii mu am sëriñ bi ne na ko demal nga oote te bul yàkkam gis nga ndaw lu jub la nekk fa loxol yàlla jomb ko kon ñi ngi sant yàlla bu baax ci moom gis nga yenentu yàlla Suleymaan ba mu xool ba mu gisee may yu rëy yu yàlla may yépp hmm, dafa wax ne mu ngi sant yàlla mi nga xamante ni alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almuminun wa warisa suleymanu daawud wa qala ya ayuha nnaas ullimna mantiqa tayri wa utina min kulli cheyin inna hada la huwa al fadlu lmubinu la wax ba mu gisee may yooyu nag may yooyu may yore yooyu nag ah naa la loolu fadlu mubin wa xusira li suleymaana junuuduhu min al jinni wal insi wat tayri fa hum yuzaun xata ida ataw ala waadi namli qaalat namlatun ya ayuha namlu adxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuuduhum laa yashcuruun fa tabassama daaxikan min qawliha la may ut ca wax ji mooy wa qaala awzicnii an ashkura nicmataka allati anamta alayya wa ala walidaya wa an amala saalihan tarda kon ñun dañuy taxaw ci barab ci bunt boobu kon di sant yàlla lii suñuy maam ñoo ci nekkoon suñuy bàyyi ñëw nekk ci ñi ji ñi gis jagle ba ñu yàlla jagle ci biir way gëm ñi ndax loolu Suleymaan wax fadrana ala kasiri min abadil muminun la wax ah kon mu yegg ci be mu yegg ci bene an amala saalihan nag tardaahu ba ma mën a jëf jëf ju xiw ju yàlla gërëm bari na jëf ju xiw te yàlla du ko gërëm waaye moom dafa ràññale def ne jëf ji xiw ju yàlla gërëm kon nag bu ñëwee fii fekk fi ndaw loo xamante ni dafa jël boppam jaay ko jihaad ci yoonu yàlla jaay askanam ñëw effacé turi baayam effacé turi ndayam ne la man sa baay laay bëggee sa baay laay sagoo népp lépp lu ma mel sa baay la te yàlla rek moom laa ànde woon ak moom kon wax dëgg yàlla bu ñëwee bu fii gis xale yi ci melokaan bi ci lim leen yaree nii kon ñun alhamdulilah duñ def lu may ñaanal ko yàlla te ko sant bu baax di ko gërëm te ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yokk yàlla guddal fanam te may ko wér ñi ngi sant yàlla daal bu baax alquran daf ñoo wax ne man qatala nafsan mutaamidan fa jazaauhu misla ma qatala min annaami waaye nag wa man ahyaaha fa ka annama ahya annaasa alquran dafa ñoo xam ne ku benn bakkan te tay ko kooku luy fayam mislima qatala min naami la alquran wax waaye man axyaaha nag fa ka annama axya naasa jamian bu dundalee benn bakkan mu ngi mel ne yow dundal nga bakkan yépp wax dëgg yàlla xaal bi fi nekk tey xale yi dund ko fii tey xol yu dundut ci yàlla duñ def loolu kon nag ñi ngi sant bu baax di gërëm di ko ñaar yàlla yal na ko yàlla wattu yàlla sàmm ko taxaar ko ñun ñëpp yal nañu yàlla saxal ci njub njub rek moo ñu fi dajale ñu ñëpp ak bugg xol bu sell ak bugg xiw ñun ñëpp xiw lañ taataan si jërë ngeen jëf yéen waa jëm birri wal yéen ñi nga xamante ne yéen yéen nañu yéen nañu oo ci xiw gii nii tey ndax bëri na koo xamante ni mun naa am sax xiw jotaay bi indiwu ko woon waaye lépp luñ fi am mu am ko ndax humul qawmu laa yashqaa jalisuhum loolu la yonent bi dégg ndax jotaay yu mel nii itim dana kaafara ay junne junney junne bàkkaar yoo xamante ni nit def na ko wala ay yeneen junne junney junne jotaayu jotaayu safaan ndax alfay alf min majlis suu la yonent bi wax damay faral di wax ne xajut ci dundu doomi aadama mu teew ñaari milliards yi jotaayu ba jotaayu bàkkaar impossible mënta nekk sa dund gi loolu xaju ci waa léegi nag ci mbaaxu yàlla yàlla mu ne la nga teew ci jotaayu xiw boo xamante ni dinaa la ci kaafaraal ñaari milliards yi junnay ñaari milliards yi bàkkaar yoo xamante ni donc teew ci jotaayu safaan kon lii daje ci yàlla rek moo ko mën yàlla nañu yàlla dimbale yàlla def ñuy ay jullit xaqan yàlla wëttuñu sàmm ñu xaar ñu bépp soxla bi fi waaye indi yàlla na ko yàlla fajal tëpp ko fi ragg yàlla na ko yàlla saafara jigéen ñuy soxla jëkkër yàlla leen ko yàlla defal nii rek la fu góor ñi di xëccoo lu baax ngeen xëccoo ko ak ñoom ndax loolu la ñu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass digal ayyuhal banaatu zaaxim na ilaa naylil ula amma bi abdalin fala jotutoon sax may yegg ci yooyu noonu yëpp ndax oustaz Bachir wax dëgg yàlla jàngale na fi ni taalibe di nekkee ak sëriñam ni jigéen di nekkee ak jëkkëram ni doom di nekkee ak baayam imaam Ali ñëw moom it décortiqué ko décortiqué ko indi yeneeni xadis yi wéral wax jooju noonu ndax nit ñi xol bu sell rek lañ bëgg ndax jamono dafa toll ci yàq waay foo taman ba nga xamante ni mooy la alquran yàlla wax rek ne wala asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri kon jotaay bi mat na di bëril jotaay yu mel nii mat na di bëril ci jamono fi mu toll nii nit ñi lii rek lañ bëgg mbaax rek lañ bëgg defaru rek lañ bëgg sell rek lañ bëgg xool yu fees dell ak yàlla rek lañ bëgg jub rek lañ bëgg te jotaay yu mel nii moo ko ci moo moo koy mayee te wër na ma ne man wér na ma ne képp ku teew fii tey sa xol dund na ci yàlla ndax dégg nga am nga fi loo yóbbu ku fi teew tey rek am nga yóbbal ndax dégg nga loo xamante ni lu lay jëriñ la Oustaz Bachir joxe na fi darsu yoo xamante ni mat na yóbbal sëkk buñ ko buñ demee nañ dégg li fi ba Bachir wax ñun ñëpp ñu jëfee ko te nekk ci ren ba dewen bu déwénee incha allah ñu jëlaat yeneen darsu yu bees yàlla mun na loolu yàlla ñu fi yàlla bàyyi yàlla bu mu nekk suñu mujjanteelu ziar yàlla nañ ko def ay ati ati at at yu limoo limu te bépp bu ñëw rek yàlla na gën a barke yàlla na gën a yokk yàlla na ëpp li jaaba bi jaay rasulillah sallallahu wa sallam yal na la fi yàlla bàyyi yal na yàlla guddal sa fan yal na la yàlla may wér sak nga ci kër ci kër Cheikh Mouhamadul Aqib sak nga ci kër Cheikh Mouhamadul Aqib wax dëgg yàlla man day musuma dégg ñu ne jëf ju ñaaw ji yow yaa ko def fi musuma dégg ñu ne wax ju ñaaw ji yow yaa ko def fi kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm lii rek la ñuy nit ci yàlla cheikh ustaas Bachir wax na ko sànq bàyyi wax nañu nu ñuy tànnee sëriñ fii ku fi nekk ci leneen rek yow yaa ko teg sa bopp ku fi jàpp leneen ku lay nax walla ku lay wala ku lay jëmale ci leneen lu dul yàlla yow la neex ndax ñun suñ sëriñ yee nañu wax nañu ñu nañu utee sëriñ wax nañu qualité yi ñuy gis pour mun a moomale nit ki ci suñ bopp koo xamante ni du ñu sànq kon nag buñ nekk ay dof bàyyi nee na buñ nekk ay dof yoo xamante ni ku jug nax ñu ñun bàyyi def ñoo xee dégg nga ba mu demee wax wax wax ba mën a tut ba mu néew doole néew kàttan dafa dem ba ci yenant bi ne ko maa ngi nii néew naa doole de jaaw naa sonn naa màgget naa waaye loolu yëpp ci lenn li yam suro dina laa yuru di xitaala dégg kon buñ bokk ci ah alladina nasullaha fa nasiyahum buñ bokk ci ñi nga xamante ni dañoo fàtte yàlla ba yàlla fàtte ñu yàlla buñ yàlla fàtte yàlla buñ fàtte yàlla yàlla nañu yàlla wattu yàlla ñu yàlla sàmm yàlla xaar ñu yàlla faj mbooleemi haajo yi yàlla soxla bu rëy bu ndaw a yam ci moom bàyyi nee na suñ soxla yi nañ koy ñaan yàlla bu kenn xeeb benn soxla waaye it bu kenn xéem benn soxla kon nag ñu ngi leen ndokkeel bu baax beneen yoon yéen ñu sos li ak képp koo xamante ni dimbalante dimbalante na ci ak yéen ak képp ku ci def dërëmam ak képp ku ci def alalam yal na la yàlla fay xiw yal na yàlla huutu huutu la ci ci fay yàlla mun na ko yàlla nañu ko yàlla defar bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala allahi bi azizin asalaamaaleykum wa rahmatullah sant nañu baax gërëm nañu baax alhamdulillahi rabbil alamin ihdina sirata almustaqim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 صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول مصطفى صادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما في رضاك عنا اللهم اجعل القرآن عظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن عظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعل ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعل علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامدد علينا من حماك الأمنع سرادقا من حل فيه يمنع اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يضعم اللهم إنا ندرع بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائنا وعصينا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين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 man xadara min aljamii aw xaaba wa zidna wa atina wa arfacna wa daafi'na wa axfadna wa saddid umuurana wa arix abdaanana wa quluubana wa jacal xayra ayaamika yowma liqaa'ik wa jacal xayra ayaamina yowma liqaa'ik allahuma asturna bi sitrika aljamiil allahuma asturna bi sitrika aljamiil allahuma asturna bi sitrika aljamiil wa caamilna bi lutfika aljasiil wa fadlika aljamiil وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين